ginnaaw yéen ñi nga xamante ne wax dëgg yàlla boobaak léegi yéen toog di xaar émission bi tàmbali na la seule émission qui pense à vous et vous incite à regarder la télé confrontation dama koy ànd ak sama rakk sama xarit Mouhamadou Moustapha xam nga tey nag retard bi ñu am moo tax te situation oblige maa ngi jégalu bu baax a baax baax foog naa ci man la de waaw ci yow la waaw waaw ci man la situation oblige wax dëgg yàlla bijou maa ngi lay nuyu bu baax waaye balaa boobu itam danga may ma jaale li nga xam ne am na Sénégal Mhm. waaye rawatina Médina mu mhm. nekk sama koñ. mu nekk benn dal bu daanu ci ci kër ba ki ñuy wax maman Roqaya ak Ousmane Sarr génn ci àdduna. Mhm. mu nekk sama koñ rue 39 angle 22 waaye mu nekk rue 39 angle 18. donc mu nekk benn ale bi ñun mu nekk mu nekk voilà tiis bu métti ci Sénégal voilà rawatina waa Médina may jaale ñëpp di wax ni vraiment yi tamit gis nañ message yëpp gis nañ soutien yëpp donc di koy wax yal na leen yàlla yërëm te xaare leen àjjana euh, ñoom seen njaboot ñu taxawu leen waaye itam Babs jaspora moom mi nga xam ni yaayam génn na àdduna tamit même jour waaw ma koy jaale moom itam bu baax a ah, baax loolu day yëguñu ko wax dëgg yàlla yow yëgoo ko ndax jamono xam nga lool waaw xatoon nga lool waaw jamono ji waaw xatoon nga lool xatoon nga lool donc Babs yooyu tamit ñu ngi lay jaale sa yaay ji nga xam ne sa xarit ñu ngi ko koy jaale bu baax a baax bu baax a baax a baax Babs Diaspora noonu daal moo nekk sama nuyoo tey Bijou waaw waaw sa nuyoo tey day am solo yow Mamadou Moustapha ndax nee naa la sa présence daf ñuy Euh, euh, remettre à l'ordre du ñu fàttali lu bari bari bari ci la bokk euh, bokk na ci rubrique façon bii mm-hmm. ñuy def nii rubrique karaajo laa ko tuddee parce que mooy ñëw di wax à chaque fois di revenir ci actualité bi parce que wax na dëgg mm-hmm. xel xel xel du day day fatu te da ciy baax ñun bu ñu yàlla joxee fasaaxa wala ñu mm-hmm. nekk ay porteur de voix nekk ay nit ñoo xamante ne suñu plateau yàlla dogal na nit ñi dañ koy setaan ak di ko déglu da ciy baax ñuy fàttaliku ak di gën a jege askan wi di xool exactement li nga xamante ne moom moo leen naqari ci mënd bi ñu ngi koy wax bee Moustapha tey maa ngi jégalu ci retard bi de gis nga situation oblige ayta euh, euh, retard bi nag li ko waral tey sama doom ji moom moo moom moom lañ doon ngénte ah, ah, euh, looloo tax ñu nekkoon fa looloo <laughs> indi retard bu yàgg bi yëpp mm-hmm. waaye du suñu coobare comme mënuñoo wax Moustapha déedéet mm-hmm. sañ ñu ko sax wax dëgg mm-hmm. yàlla ayca euh, euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal euh, Mouhamadou Moustapha keroog maa la koy wax sama doom ji da doon def BFM waaw moom tamit yàlla dogal mu am ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñëpp am nañ ñu leen di ñaanal bu baax a baax a baax a baax yeneen yeneen diplôme ci Mame Bousso ah cuur Mame Bambi yeneen ak yeneen ak yeneen daal di ciy topp du dëgg ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax tey nag comme ni ma tàmm di ko waxee a chaque fois confrontation dafa am ay nit ñoo xamante ne dañ ciy jàpp ay nit ñoo xamante ne euh, nee naa leen ñoom ñoo tax émission bi du wéet euh, ak ay sponsor ah yoo xamante ne mooy tax émission bi di taxaw bokk na ci Frus na guerre euh, basin yi nga xamante ne bii ma sol tey mi ngi tudd noblesse bi la ah moom laa sol tey. Mhm. Ah, bee passé éminent laa sol mais bii noblesse bi laa sol tey. Mhm. nga xamante ne dafa am soie viscose ak ak coton moom la ñu mélangé ba tax affaire bi di tombe di rafet ba bëgg dee. arame su daal fi fiy génn ci lu baax li bokk na ci EDK nuuru laa jus jus yi nga xamante ne EDK bu ngeen da ngeen ko fekk nuuru laa namp yi <laughs> bu lay bu ko fi wax de non man kay dama man woon na kon maa ko wax mais man dama ne nuuru laa <laughs> bi bu ba dugg ci yooyu non mais dañ koy yeggale su ma nee nuuru laa man boo waxee nuuru laa ma ne la namp yi nag <laughs> ma daanu <laughs> rajo moo bëgg yooyu ay nuur laa ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax eau royale eau pure claire et très légère ndox bi nga xamante ne moo ñu gunge à chaque fois ci suñu plateau yi bokk na ci Uniparco ah euh, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax savon la main ah mhm, tey loolu la defoog naa mhm. euh, su ma su ma fàttalee dara rek Aysatu nga daal di ma koy message confrontation dañuy indi ay ndaanaan yoo xamante ne dañ leen di ràññee ci seen originalité ak seen créativité euh, tey tamit ñu dalal ci ndaanaan yooyu kenn Mamadou Moustapha waaw ma bàyyi la nga nuyoo si invité alors ki ñu ki ma ki ma ki ma ki ñu dalal tey wala ma ne ki ma dalal tey parce que pourquoi j'ose dire ki ma dalal tey mm. euh, da nga ko fi dalal ñaari yoon mu bañ tey ma jël sama responsabilité indi ko moo tax ma ne ki ma dalal tey du kenn ki nga xam ne moom soxna biisu tey dalal na ko fi ñaari yoon benn bi mu toog ba vingt li biisu musta def teel a pare mu annulé beneen bi ñu defar suñu affiche ba pare mu annulé tey nag maa jël sama responsable ne bii dama koy indi ñu bëri bi ñu dugalee affiche bi yaakaaroon nañu est-ce que dina amam du am indi nañu ko teg tu mu ne du teew ñuy nataal koo kan la Serigne Moustapha Dramé yàllaay kese la ñu dalal tey sëñ Moustapha bisu tey moom laa la indil. balaa ngay nuyoo sa ah, ah. invité euh, xam nga Sophia Thiam day jongante fële ca ca ca Togo. waaw foog naa Togo la de ah. Togo la waaw. waaw euh, jongante boobu meilleure chroniqueuse. Mhm. ak yu dem na démb. waaw gars continuer leen ci vote bi rek pour mu gaaw ñu ñaanal ko. Mhm. wax dëgg yàlla mu daal di jël ndam li daal di koy indi ndax ndamu 2STV la. suñu ndam la ñun ñëpp euh, mhm. moom moom suñu fierté la surtout man sama fierté la mu ngi noonu affiche baa ngi nii ngeen koy gis ah, dem leen ngeen voté ko Sophia Thiam mhm. catégorie meilleure chroniqueuse euh, mhm. moom ca ko nominé mhm. euh, yàlla na ko yàlla may ndam ah, ci bu gaaw a gaaw a gaaw waaw Mamadou Moustapha yooyu ngay wax yëpp da yee fitna rek ak di yee histoire ak di yee problème fàttali la rek xam nga waaw waaw dama bëgg nga wax sa invité bi ne ko émission bii yàllaay kese kese la émission bi tey loolu moo demee Sëñ Moustapha ñu ngi sant yàlla ci jotaay bi di sant yàlla tamit ci ndax woykatu arab dañuy wax ne li ku li seen ajal lu ne am na ab mhm. bu boppam jotee rek mu jeex mhm. di sant yàlla mi ñu may tal ak fekkee ak wér mhm. ba tey ñu mën a jàkkaarloo dina yu nag waa Saalum dalee Kaolack dem lat mee ngi dem suma village Kër Mor Suti ak képp ku dëkk ci diggante boobu di Saalum Saalum mm-hmm. xattaa ñi nekk fii ci biir Ndakaaru di nekk ay Saalum Saalum maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp mm-hmm. di leen ñaanal si ñëpp di nuyu waa 2 di wax ne Bijou ni nga may xoolee ci boppam daf maa commencé énervé <coughs> parce que commencé ku nga may xeelu mm-hmm. ban xeelu pour la dëgg tam loolu mu doon sama nayoo bisimilah <laughs> man dama commencé énervé ah te commencé yaa waxoon ne émission bi doo ci ñëw waaw dox nga ñëw ci la ma waxoon ba ne doo fi ñëw ba ne du ma fi ñëw da nga ciy génn moo tax ma ñëw ci loolu la loolu la mhm. loo waxoon oustaz yi oustaz moo soo def bi dans un an ci gannaaw oustaz oustaz yi man benn oustaz laa amaloon problème ban la Imam Kanté Imam moom ñëpp nag déedéet oustaz yi benn lañ <coughs> déedéet bisu mhm. benn oustaz laa amaloon problème léegi nag te li mu waxoon. ba ma am moom problème. bu ko waxaatee ma ak moom ñoo amaat problème. léegi nag la mu waxoon ba ngeen am problème. Mm. boo ko waxaatoo tey. Mm. mu jug ñibbi. comme la amatoon problème tey jii yéen ñaar tey fàttali ma ko ma wax la ko léegi. non. Euh, euh, yow sa invitation oustaz yi def ay ay ay deux ans. moom nga déclare pour bëgg tax taafantaloo loolu. fàttali ma ko. bisu. fàttali ma ko ba nga xam ne du ma ruux du ma dellu avance. bisu ma ne. man. bisu non non xam nga lan la. fàttali ma ko euh, ngir yàlla. Euh, euh, du ñu ko fàttali. ay waay fàttali ma ko ñaar bisu du ñu ko eh, fàttali yow. eh, eh ko fàttali. eh dina ma ko fàttali de. <laughs> yow tamit nag yow yaa bëgg a yee fit. waaw yow yaa ko fi yee. Ah. ko yee ba nga ko wooyee nga fa yee. waaw d'accord kon nañ seetaan waaw léegi léegi bul fàttali. attaqué salaamaaleykum ne dama ko xeex. léegi yow da nga jàpp dafa génn ci loolu. dama ne la. ci lan laa génn dama bëgg mu wax ko man génn ma dara benn ustaas ku joteeg benn ustaas fii Sénégal. wala benn sëriñ. Mm. ak koo mën a dox mm. man même bu gis sama yoon nekkul dugg naa ci. loolu tooñ la di. en point la nga nga doon tooñ. da ngay dégg alxuraan moo tax. Hmm. waaw luñ ci wax. déggu alxuraan di. waaw moo tax nga bëgg a déggal ma. boo manqué de respect benn imam. Hmm. boo waleem ku imam. doo da nga jàpp ne manqué de respect la. Ah. fàttali ma lan laa wax manqué de respect. ne la nga waxoon. lan mu ngi ci bi keej boo xool di ko nga waxoon mais ma ne. Hmm. yow ndax li nga fi wax bi laa wax te man li ma fi wax déggoo ma loo ma fàttali léegi ma rappelé la ko léegi wala déggoo li ma wax yëpp. wala déggoo li ma wax daw ma ci saala <laughs> euh, ma ñëw yow ma ne Bijou Ngoné mhm. ndax amoon leneen loo mën a wax. lu bokk teg lii nga bëgg a wax nii. gis nga plateau bi dama la bëggoon ne la. yàlla dogal na sama palaato la. maay seet li ma fi neex. Mhm. ma di ko def fii dégg nekk fi de pour wax la alaaji. alaaji dégg salaamaaleykum loo bëgg ñu wax. <laughs> dégg moo la dàq liggéey yow. dégg maa ko jàngal. ci man lay doon dégg moo la ah, raw na la léegi. yàlla baax na sant yàlla. kon alhamdulilah loolu laa bëgg continuer ci leneen. mais fii nii domaine bi. Ah. yàlla dogal na maa raw si li may def nii ci émission bi. Ah. maa ci raw ñëpp loolu yàlla dogal lu la fi indi li ma fi indi. raw ñëpp <laughs> ma ma jël ko en ah <laughs> waaw mais léegi. léegi nga rawee ñëpp sëñ bi laa bëgg xam tey damay arbitré. parce que yaa ñëw rek. mais attaqué ma mais bijou bijou damay arbitré mais nag mën naa jug à tout moment dem xooli vaar. waaw tey moom à tout moment mën naa xooli vaar lan moo tax nga raw ñëpp bu ñu paree ñu mën a dem ci vaar yeeg kii fi jot a xew. Eh, lenn lu ngeen ma mën a wala déet. loo xam loo xam ne nii Sénégal yi ñu seetaan ñoom mën nañ cee jëriñu. d'accord ñu nit ñu mën ci avancé. léegi lan moo tax nga raw ñëpp fan nga ko teg ci yan baas moom fi mu waxee. Mm-hmm. fi mu waxee moom. Mhm. falaa ko tontoo waaw d'accord léegi léegi léegi pour pour yombalal la nag du ma nangoo toog fii ne man lépp lu ma nekk pour yombalal la ko man pour yombalal la ko mm. dañuy tegg li mu wax man maa lay laaj yow mm. est-ce que jàpp nga yow sëriñ da leen a raw bul wax sëriñ bàyyil sëriñ ci sëriñ moom day sëriñ ah, bul wax sëriñ ci ci ndax lan loolu dafa daal turam noonu waaye du sëriñ de ah yow kon yow a gars yi ci YouTube bi kon yi ngeen di defee ku ku da leen a raw yow im si wax amoon naa ndey ni <laughs> aja sëñ Moussa gis nañ euh, ci YouTube bi bëri nañ sa genre yi taxaw wax à tout moment alaaji dégg damay def lii ku dem kii ku dem ci soirée waale da ngay dem safara ku dégg lii ku def lii ku def lii dégg daamul dara waykat ba waykat la bis doo génn ci jooju wax <laughs> génn ci donc yow ak ñoom ñëpp ngeen bokk ñëpp mettre leen dans le même paquet ñu ne ñuy aay ñu def ay naxaatekat la naka nga gisee loolu bu fekkente ne nii maa wax mooy yow sëriñ si da ngay surveiller mhm. moo tax nga gis seen défaut mais fi Sénégal la ko dalee ci la ko dalee ci état. ba ca ca Saalum da bay. métti mun ne am na ñu si nekk ñoo xam ne. ñoo tax ñu ne métti baaxul. waa dégg léegi ñu ngi ci yéen pour l'instant ci mën nga nekk ma tontu la. non waaw ñi ma xam ci sëriñ ci ñi ma xam ci sëriñ ci. Mhm. képp ku ci def lu noonu. yëbbale la ci yoon teg la ci yoon. Mhm. ñëpp képp ku ma gis demagoo ci yoon ñu teg la ci yoon. Mhm. jàpp naa la nga nekk lu jub la. mais am na ñoo xamante ne xel bu rëy la jaay ba duñ def loo xamante ne lu ñu leen yóbboo ci yoon. waaw mais rek yow yaa am xel mu rëy ba mën a seggi xel borom xel yu rëy yi. ah dofuñu tekkatu xel yi ah waaw. dof dof tekkatu xel yi dañ fi bari de. ah waaw mais li li sa baara waxoon rek. waaw yow Cheikh Bara ndogu fi yow yaa fi la. xam nga ñoom yow waaw mais la. Ah. yow ñii def liggéey di wax. yow yaa jàpp ne ci taqal la ñu nekk. Mhm. waaye man ñi may sibur. Mhm. ñi ma dégg ñuy wax ñëpp. Mhm. alquran la ñu wax ak hadis. am na ñu naan yow tekkatu xel nga. mais ñoom ñoo xam. parce que nee nañ yow parfois da ngay naxaate. waaw dégg la ma ne. Mhm. ñoom ñoo xam man kenn mënu maa mhm. te xamoo ci li ma nekk. waaw pourquoi yow nga kon yow. yow ah, mhm. nga jugé waat fii. Euh, Papa Ndiaye Thiou euh, am di million nga ne am di million yaa ko liggéey. Ah, yaa ko def. yaa ko tas. yaa ngi dégg. bisu eh, da ngay posé benn question ne ma. non non yow yaa ñu laaj. non yow yaa ma limal may lim di. dañuy léegi waaw. da ngay posé benn par benn ne ma yaa jugé bii. nañ ko def benn benn rek waali. ndànk ndànk rek ko dem soirée waali dem safara. balaa mu naan dañ koo sotti kenn sotti ko. waa dégg lu tax nga ne ko demoon ci soirée waali dem safara ñëw ci saw biir en général. loolu waxuma ko yàlla ko wax. ci fan. ci alquran ba demee surtout Luqman. Mhm. da nga fekk yàlla di wax ne wu minan naasi. Mhm. am na ci nit ñi. Mhm. man ñoo xam ne yastar yi dañuy jëndee laxwal xadis ay waxi mbóosóor ci ñaari bàyyi laa yem yàlla ne wu mi ne am na ci nit ñi man ñoo xam ne yastar yi dañuy jël seen alal seen dix mille francs laxwal xadis di ci dagg bi dem vogue yàlla ne wu mi ne naaj xam nga vogue <laughs> xam naa vogue mhm. xam nga xam naa parisienne xam nga parisienne xam naa five fii Parisette moo ne gannaaw mooy baar bi nga xam ne 10 heures suba la nga xam sax xaw ma ko man mi voilà léegi nag moo tax man xam nga ne kon bokkuñu man damay jàngale moo tax lépp laay xam yow boo teeyee rek boo ma laajee ma wax la lépp bu fekkee xam nga nag njar moo am hmm. bu dee xam-xam nga bëgg a dégg hmm. question boo xam ne da nga bëgg ñu répondre ko teg ko ci alquran ak sunna hmm. boo ma laajee da nga may di lu ma wax waaw continue continue yàlla ne wu mina naas am na ci nit ñi ñoo xam ne am na ci nit ñi man ñoo xam ne yester yi ay promoteur lañ. Mhm. lawal xadis musique si. Mhm. lawal xadis. Mhm. musique la. lawal xadis. musique la. dalli laa ci andil. pareegu ma nag. piste bu gudd la li ma bëgg wax nii. ndax day loo xam ne un an ci commentaire. pourtant man. mais ma ba mu pare kon nel kon yàlla ne wu mi ne naa si am na ci nit ñi man ñoo xam ne. yester yi <coughs> laxawal xadis. dañuy jëndee seen xam-xam. lawal xadis musique ba duñ mën a wax ne musique dafa xaraam bu na naa am na ci nit ñi man ñoo xam ne yastar yi ay promoteur leen lawal xadis làmb ñoo ñëpp yàlla ne li ju dilla xan sabilillahi loolu ñu def dañ koy def pour orienter nit ñi ci leneen lu yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala lu tax nga wax loolu lu tax nga jàpp loolu loolu mooy dëgg mais est-ce moom képp koo gis mu yëngu ci musique xam nga li may wax nii du sama wax ko yàlla ci alxuraan dëgg la dama koy layelee juróomi wax léegi pourtant nag pourtant nag da nga wax benn wax bu am importance bi Taf njëkk la laaj benn affaire nga bañ cee tontu lan ngay wax sëriñ si nga xamante ne dañuy nekk si internet bi di wax lu dul dëgg ak di naxaate yaa ngi dégg un deux trois ñu woo réseaux sociaux wala ñu woo site internet fay ko xaalis jàll seen numéro téléphone ci suuf di wax li leen bëggal ak ñu di leen ko waxal di promouvoir pour am nit ñi di ñëw ci ñoom di am client di. te xel rombul loolu. est-ce que yàlla loolu la wax itam est-ce yàlla loolu la wax. yaa ngi dañuy tartib li ñuy wax tartib. sa xam-xam da nga ci war a jaamu yàlla mm-hmm. dimbali ci jaamu yàlla yi da ngeen da ngeen may diglu. dimbali ci jaamu yàlla yi. gannaaw yàlla moo tax a toog fii. Mm-hmm. li ma bëgg wax man boo ma digloo. Mm-hmm. dara du génn alquran sunna. te képp commercial da nga ci jëriñu. boo ma laajee mbiru mbiru musique li tax ma ne ñi dewoon fii safar lañ jëm. waaw pareegu ma ci nga teg ma ci mbiru sëriñ. waaw wala continuel foofu. foofu foofu non dama man non non teguma la foofu te dama ne. Mhm. li nga wax ci. waaw léegi su ma daanee fii ba mu leer. waa xaaral nga ñu une question bi. d'accord ah. euh, euh, li nga wax xam nga temps bi moo tax dañuy xool rek ci l'essentiel parce que li nga wax comprendre nañ ko te répété nga ko ci sa ay. sorte yu bari donc. Euh, pourtant man bii li Euh, ci kiy dem ci euh, euh, soire li nga wax ci ci kiy dem ci ci ci promoteuru làmb dama ne est-ce que concerné na sëriñ bi toog ci internet bi di naxaate ak di wax lu dul dëgg. sëriñ. dafa am. Mm-hmm. ak lan. oustaz dafa am. Mm-hmm. am na ñoo xam ne nag ay boroom xam-xam lañu. Mm-hmm. man Moustapha Dramé yàlla kese mii. bëgguma sax ku ma oo téléphone ma nangam may ma ba ma yow. lépp lu mel émission émision bi dama koy teg ci condition ñett mbir. Mm-hmm. bii dama naan damay wax li may liggéey. Mm-hmm. bii damay wax ci actualité. Mm-hmm. bii ma wax ci loo xam ne nit ñaa ngi koy jëf muy lu xaraam te bàyyi ci xel ma fàttali leen ko pour ñu génn ci. d'accord ñett yi la émission yi. yow yow da nga da nga am sëriñ am sëriñ am ustaas am ñi am ñu am xam-xam yow ban nga ci. man. Mm. taalibe laa. doo sëriñ. taalibe taalibe laa taalibe moo gën a for sëriñ sax. sànq dafa am fi nga ñëwoon euh, ma ñëw fi muy. da nga wax euh, euh, bëgguma duggaat ci aay pour bañ a dem benn araf mhm. nga wax ko yàlla nee na wa minal naasi yaa ko wax ci ñi dem ci musique yeeg ñi dem mais est-ce que amul fenn waxe ñi nga xam ne itam dañuy yónnee dara pour musiciens yi way leen gannaaw sa yow exemple sa exemple yow 31 décembre waaw yónni woon Papa Ndiaye koo xam ne ci man la njëkk ñëw pour montre bi pour montre képp koo xam ne kon yow xanaa safara nga jot dama ne mm-hmm. képp koo xam ne mm-hmm. jël nga sa alal mm-hmm. investir ko ci musique mhm. ba ci caméra man bi jënd caméra am taxaw mhm. di di couvrir soirée <laughs> waaw moom uh-huh. ministère la parce jël na alalam jëndee ko caméra ki ko seetaan bi di ko di ko expliquer moom it moom it ki ko seetaan yow kon ci nga bokk ki ko seetaan ci boppam ki may montre nag waaw xam nga seetaan ñaari façon seetaan moo am yow ban seet waaw seetaan pour xam. pour mën a jàngale. ak seetaan pour bànneex. yow yow da yaa jël xam-xamu arrangement nag. yaa jël li la arrangé. waaw léegi yow sëñ bi nga xam ko yow. léegi ñi ci joxe montre nag. yow yaa jël xam-xamu arrangement nag. ki dem ba ki dem ba xam fecckat bi. muy Papa jox ko montre bi mu jëm ci way kat bi ci événement 30 décembre bi nga xam dee safara rek foofu la ëppee. nga maye fa montre yow nga man. mosuma jël montre. ah. may ko nit ne ko nel nit na ma woy. kon lu tax Papa Ndiaye ne waali ma. gis nga bu fekkoon ne maa jël montre man dootuma am dignité gu ñemee toog ne waaye musique bii ngay dafa xaraam. kon montre boobu fu ah, mu jógee nga ko def pour bëgg buzz. montre boobu yow ci loolu daanaka foofu nga pëtaxloo pour am buzz. nit ñi xam la di xam nga buzz sax buzz. Mhm. yéen ko tal. waaye boo waaye yow itam nga ko de. waaw mais ma wax la nga toog. waaye léegi ma taxaw ma bàyyi sa soi-disant client yi tiim dégg la nga ne nuyoo ma tey dinaa nuyoo suba dinaa nangam tey bu se suba nga gestu euh, euh, daal di wax ni que ñii doxaan baaxul ñii nangam baaxul te sëñ bi yow da ngay doxaan yow takk hmm. ko damay takk waaw tekk na waaw yow yaa ngi xas yaw yow une semaine nga xas di doxaat. ñuy doxaat nga xas leen teg njaajaan njaay ñu teg semaine sëñ bi tekkandoo benn de ñaar nga laal. ci benn bés ba du mën lépp. yaaroo ba du mën lépp. Hmm. xam ah takkoo benn di ñaar nga takk. benn tàkkusaan dama ne. Hmm. ci benn tàkkusaan. Ah. waaw xanaa ñooñu doxoo ak seen diggante ànd ak ñoom labatoo leen. man sama soxna. ñi ma takk ñëpp laa wax. Hmm. barki alquran. amul kenn ko ci xam ne doxanaa la amul. sëñ bi coofee woon tey laa la gis tey tey laa <laughs> la mooy tey la takk la tey. Oh, maanaam wax ak yow. ah takk la tey nga nangu. waaw mais doxan nga bu dee ay simili nga ko. ñi ma sama soxna yi ma yor nii. waaw xamul koo ci xam ne ni mos naa toog yow te dugg na seeb dagan. sëñ bi mën nga wàcc alxuraan ne yow doo doxan. billaahi. sëñ bi wàcc alxuraan ne. doo doxan. ndax jamono ji toll nii tey non eh, yow eh, boo toogee rek xam nga man nag yàlla dafa ma nattu. Ah. ma ne waatal rek mm-hmm. ma feñal kenn. man boo feñal kenn. man xale bu góor bi mu nekkee xale bu góor. Mm-hmm. dama doon bi ngay nekk armée wax nag. non non léegi doxaanu ma. nii doxaan dox mën nga waat ci alxuraan. dama koy doxaan. non damay laajte. dama ne la nii nii may wax ak yow amul kenn ku may doxaan. ah ni ah yow bisu dégg. waaye da ngay doxaan. nee <laughs> na daal ni ak yow nii sëñ bi nga. yow yaa raw sax teg katu xel yi. <laughs> mën na léegi waaw euh, léegi. na di ko di ko utiliser. xam nga doxaan xam nga mais ma mais ma jamono ji amul kenn waaw kay. waaw jamono ji mën na nekk mooy moom moo waxoon. ba pare sëñ bi sëñ bi damay ñëw ci ci ci sujet yi ngay dugg à chaque fois. parce que chaque semaine da ngay dugg. ci certes c'est des ay thèmes yu am importance la ci sujet yi ci dëkk bi mais sëñ bi yow lu amul buzz rek doo ci wax. lan nga gis ma wax ci loo xam ne. mënd bi mi ngi fi nit ñaa ngi sonn amuñu fu ñu dëkk. ndox maa ngi leen di sonal amuñu fu luñ nangam ak nangam nit ñi ñu ngi xiif amuñu lu ñu lekk malaat yaa ngi fi même chose hôpital yi. sëñ bi nit ñi di dund coono. quatre ans yi ma dund mais sëñ bi yow. quatre ans yi ma dund gum nii ci internet. waaw chaque at. waaw bu ndox laalee suuf. sëñ bi sa sotti mën am dinaa ci wax. waaw xaaral ma sa sotti yu ci bari sëñ bi boo waxul ci musiciens yi yaa ngi wax ci ki am bës euh, boo waxul ci Wally Seck yaa ngi wax ci sa euh, euh, si sëriñ si sa mbokk sëriñ si lay diir mbagg ak di xuloo ak yow nga leen di tontu nag chaque jour tontu yu saf ñuy jokkalante ngeen di jokkal bi yonte boo boo boo boo waxul ci ñoom. Mhm. yaa ngi ci xale jigéen ñi sëñ bi volé moo volé bi nag moom. attrape li nga wax ci attrape. trappe trappe trappe mhm. xam nga dëkk bi. Mhm. mais sëñ bi foo xamee trappe ak circonstance yi la trappe di yóbbu daaj yi foo xamee. yow da ngay laal yooyu man soo xoolee sama xam ne xam ne leeru saatu Fatick rek moo ci nekk waaye dama wax ne la dëkk bi lépp lu fi nekk soo biis ak lu mën a dox lu xaraam man gëstu naa ko xam ko ëllëg su may jàng mën ko wax dama ne vole trap suus nit ñi dañ ci war a jóg état da ci war a jóg la mooy suus sëñ bi sëñ bi foo xamee suus man mii ñu may wax yow barke alxuraan maa ngi doon dégg moom boobu ci yow waaw bokk ma ak yow man damay jàngale yow daa jàngale woo diine yow bu la neexee li nga nekk muy journaliste mi nga seet nga yaa xam. non non non man man euh, bu ma ko demee xamit danañ ne kii xale la war na dem xam nangam war na dem xànnam dagan na. te yaa ngi ci milo bi. dagan na <laughs> man boo ma xoolee nii nag xam ne natt liste du ma c'est <laughs> comprendre mais. si <laughs> ñu nga jëm suma de suusa ah. tiktok nga jëm suma de. non mais sëñ bi kii suus suus bi suus bi foo xamee suus ak <laughs> ah, da ngay suus da ngay naan xam nga damay sant yàlla ci alxuraan. bisu. ñun ay kilifa lañ comme médecin ñu médecin lañu nit ku nekk la ñu nit ku nekk. moo ñëw ci ñun waxtaan ak ñun dañuy xam xale yu góor yi tegu seen appartement. ànd ak seeni xale yu jigéen yu ñuy wax caga diglu kenn solu yu mm-hmm. <coughs> ñu teg seen volet. Mm-hmm. di trap bu bëre di suus. loolu damaa waxoon ne. waaye loolu ma déglu ma loolu dama waxoon ne. Mmh. état dafa war a criminaliser. Mmh. volet ak trap. parce que est-ce bi nga dëkkee moo tax nga xam loolu lépp yow tamit nag. yow man dama koo xam biisu. suus mooy xam nga lan la. Mmh. gars yi bu ñu volé ba pare. waaw. di trap. xam nga volé drogue la. dafa am benn saaro enjoy bu neex bu mu lay jox. compétent boo toogoon ci njooyaan njoogaan. waa njoogaan. waaw da nga dawal oto. ba ci benn dooraan buy wàcc seetlu nga affaire boobu ngay ngay sentir noonu. Mhm. seetlu ko. adrénaline affaire boobu waaye boo boo yéegee ci oto di dool dooraan buy wàcc xam nga nguur bu neex boobu benn deux secondes lay diire. boo taabee lu bari nag. Eh, barki. boo waaye dina ma mais sëñ bi loolu explication mënu koo jox loolu ñama koy ñam mooy tax nga xam guugoo. ñam nga de. <laughs> loolu explication mënu loo xam eh, moo tax ma ne la. sëñ bi damaa raw ñëpp. sëñ bi kon man lépp loo ma laaj ci Sénégal gii ba mu xewee yàggul kon yow bi nga nekkee ko doon xew jamono couvre-feu ko nawet hmm. moo ko hmm. ci dëkk bi fii da koy def gëstu naa ko hmm. ba xam ko waaw noo ko gëstoo da ko def déedéet parce que ah bi nag bi nga wax parce que plaisir nit mënu koo nettali <laughs> nañu waxante dëgg rek waxante dëgg waaw plaisir boobu nit mënu ko loolu dégg du la ko laaj sangara sangara sangara waaw man naanu ma ko waaye jàng naa ci alquran ñu wax ma cof kay sàngara boo ko naanee ba mandi ban xeetu bànneex moo ci am ba yàlla ñu bu leen naan sàngara bàyyi leen ba ñëw ëllëg yowmal xiyaam ba dugg àjjana ma jox leen sàngara ngeen naan képp ku ko naan fii doo ko naan fële xam naa ne fekk ñu gën naan dina bëri dëkk bi ñuy mandi ñu ëpp ñu mandi fi ñu toll nii d'accord noonu ngay demee nag ba xam lan mooy benn bi topp nag mooy man Moustapha Dramé. Mhm. Mhm. wax naa leen ne kenn ñëpp lay recevoir daanaka. Mhm. d' accord euh, dinañ dinañ des dinañ ñëwaat ci loolu mais sëñ dañu ñëw ci dañu am ci point bu ñu nekkoon bu am importance te da nga ci da nga ko brosse rek dem muy yenn xeetu sëriñ yi parce que invité nañ fi nit damay cité turam muy euh, euh, sëñ Mara Niass mu taxaw ñu tudd sa tur mu ne kooku xale la pourquoi yéen ngeen bëgg di concurrence ante ku génn est ce que nekku leen seen waaw benn suuf mooy bul ma tuddal fii kenn. Ah, ah non émission moom dañuy tudd tur parce que bëgguñu ñu ne. yow yow yow ñu tudd sa tur ci yeneen ñi ñoo xam. ndax la ah, yow da nga jàpp da raw ñooñu yow. man man hmm. fi tudd benn nit. Hmm. ñëpp suba ñu ngi dugg wari xam ko kan la. Ah, Moustapha Dramé nit ñi xam nañ ko dégg euh, Mara Niass nit ñi xam nañ ko instant yéen tolloo niveau ñëw na sax ne moo la fi wàcce moom. man kay man su ma yëg bay wàcc. Hmm. bisu yaa ngi absenté ci émission bi de. absenté wu ma de man maa ngi ci biir émission bi. heure bii ku ma xool xam ne maa ngi ci émission bi. bisimilah. waaw kon kon li nga jàpp ne dama absenté keroog ci yeneen émission jàmm dama absenté wa kon <laughs> du ma absenté dara la sa xel. fi ma wax ngi fi ñu nekkoon ba léegi de. dama ne la non ma ne dama ne lu tax ngeen di euh, euh, euh, clashante. clash li rapport yi nga dégg Sidi Diop. Uh-huh. ak Wally Seck uh-huh. nit ñi gars yi naan dañu am problème uh-huh. mosuñu am problème mais ñooñu kenn ah kenn du gën di wax mosuñu am problème gars yi ñoom ñëpp ñu bokkoon ak bàyyi mais day dul ma la léegi-léeg mais dul ma la dama lay expliqué Sidi du gën di waxal waaye lu tax ngay jël exemple sax ci ñooñu bu fekkee naw la wala ah, safara lañ jëm ñoom ñooñu ñoom ñooñu ngay gis noonu hmm. waaw dama bëgg xamal ne ko hmm. boo leen foo gis ci àdduna fii Sénégal hmm. waaw équipe boo mën a gis ci àdduna am nañu fa nekk ñoo xam ne dañuy concurrence mais ñi gën a taxaw nag ñooy départ dama bëgg wax ne la <laughs> dama bëgg wax ne la. ah fii ñu nekk mm-hmm. dama bëgg wax ne ñu nekk nii. Mm-hmm. man awma kenn si ñooñu problème ak xarma yàlla. mais pourquoi daan ngeen clashante daan nga ba fi ma toog di wax yow nii. Mm-hmm. muy sëriñ muy mbalax man muy ku mën a dox boo juumee laal sharia. même bu dee sama baay sax ma ma ma ma ma la. muy kii sa suba. ak lan yow de sëñ bi man moom xam nga lan mooy may sama problème. yow loo dugg mën nga cee génn parce que yow c'est comme yaa dugg génn ci sa. Euh, euh, wax ji nga waxoon seen TV. sëgam yaa ci dugg génn yow bu ne mën nga cee dugg génn. sëgam yaa wax léegi réaction trap ak réaction suuf ba pare ne yow xamoo ci dara man xamantuma ci yow dara. <laughs> dama ne la mboolem branche boo xam fii Sénégal. Ah. mu xam alquran la. hadis lu mu mën a dox loo ma laaj ci ma toog wax yow ma tontu la ndax gëstu naa ko ba na toog mais sëñ bi comme man loolu moo jaaxal parce que xam nga am na yenn gëstu yoo xam ne. pour yëngat pour xam parce que xam nga lu tax euh, tubaab xam nga lu muy wax. en général boo ñëwee am na lu gën a garaaw de am na benn baar mais ma am na benn baar boo xam ne. xaaral may benn boîte boo xam ne. waaw may ma damay daaneel ci li nga wax léegi. bismillah da nga ne amuñu xam-xam malheureusement amuñu xam-xam c'est dommage que euh, wax dëgg yàlla euh, nga gisee noonu waaye yow leer nañu leer yàlla ni sa xol bi boo ko tijjee ñëw ci plateau bi moo nekkoon ci sa bi benn te bi nga ñëwee fii effet bi nga am bokkut ak m plateau boo mës a toog ñaar euh, ñetteel bi euh, euh, d'accord amul problème mais tubaab dafay wax naan chaque chaque famille marche à l'image des parent émission bu ci nekk invité ba émission ba dinduru waaw parfois nga gis ñu nga ne. émission bii émission bii fii de. confrontation bii la waaw ah, ma daaneel sama kër. ak bu mu mënti doon ñoom ñaar laa yemale. waaw defal naa te ñëw sa émission bi bu doon ne mën na suma xol. ba fa ñëw yàgg na de. Ah, ñaari at presque at dimi. Euh, sëñ bi yow tegu ma ñaar yoo ñëw. bu doon sama xol ñëw naa de. sëñ bi man loolu fere joo ma nag génn ci télé. ah sëñ bi sa ñëw bi yaa ko doog sa bopp de. nu ma sa bopp ah. nu ma sa bopp bis kon dañ sama xarit moo tax du ma mën a wax. <laughs> Ah, waaw sa xarit waaw kon jeex na. man ak moom xam nga ne sama xarit. mais man ak moom. dafa am benn nit ku ñu bokk ma ak moom. wala déet. loolu wala déet ngay wax kooku noonu gannaaw yàlla moo moo tax maam muy toog. ah bon waaw. Ah. mais mënoon ngaa bañ. ah yow yaa doxal yow yaa doxal émission bi di. maa ko yow émission bi yaa ko jàppoon de. kenn la ko jàppoon. waxul woon na deux juillet. waaw jàppoon nga sax dara. yaa ko woo depuis bi ñu invité. ma invité. ma ne leen mën maa ñëw nga ne da nga bëgg nga ne da war a ñëw ci émission bi leeral. ma ne la sëñ bi amul benn problème yow dama woo téléphone dama. émission bi dañuy tuddee njaaxanaay dama woo téléphone dama. daf may invité man ak Mara ma ne ko kan moo la woo kii big taf ma ne ko ba ma invité ah, invité ma ak sama morom man ko duma moromam lii laa ko wax muy toog nga ne kooku doo moromam da nga ma ma ne la mhm. big taf ma ne la ma ne la ma fontoo waaw lu ma bës ah, mhm. xam ah, ma bës yéen ñaar xanaa yéen a nekk di ko jokkalante waaw non man weesu nañ foofu bu dee bës na jël lépp ah déet yow kat dafa détrôné yaa fi nekkoon di fi moom wàcce di fi teg action yi. dama wàcce ba tey eh, wàccoo ndànk yow wàccoo ndànk dañ lay dimbali nii. naa xoolal naa gën a dugg ci ron bi sax noppalu. képp ku jógee ci média bi santal yàlla. Mhm. mais sëñ bi dañu bëgg ci dégg eh, am na say clients yu bëri parfois dañ ne bu yow da nga leen di dóor boo paree bu ñu la woowee doo leen jël. big taf nag yooyu ñooñu di wax est exemple moom mu tontu ci itam. ñu bëri dañuy wax loolu. ñu sëñ bi daal dañuy dóor bu ñu paree du ñu ko ay bopp golo la ñuy laaj ak du ñu suñu xaalis du ñu ko joxe du ko jot ak da koy woo doo ko jot fii pourquoi wax jooju noonu est-ce que réellement loolu ngay def am amal doo ma tax boo ko doon def sax doo ma doo ko def moo tax coow loolu bëri sa côté coow loolu bëri sama côté kan la non lim ñu ko wax ñëpp si voilà mu nga beneen bi mooy hmm. non tontu loolu man su ma liggéey su ma liggéey hmm. lu ma naax laa la laaj ne la boo ma ko joxee ma liggéey la ak lu ma su ma liggéey. lu est-ce que est-ce que di nga ko liggéey. loolu lu ma laaj rek ma def ko. est-ce que di nga ko liggéey loolu du sama diggante ak yow suma diggante ak yàlla la. Mhm. dégg nga ko. waaw mhm. mais beneen bi topp mooy beneen waaw non loolu suma diggante ak yàlla la. Mhm. man weesu naa fu may toogee nit jox ma nanga liggéey la nga jox ma ko ma lekk ko tëdd. weesu naa foofu. beneen bi mooy ni ma mën a liggéeyee maa ngi koy liggéeyee ñi may jot téléphone sama client yu bari di ma jot téléphone. maa ngi liggéey dina yónnee seeni ñaan sama kéemtulaay kattan képp koo xam ne jotee ñaan ba tey ji may wax yow boo demee am na benn CP boo xam ne benn CP mm. bu dem France li ma koy jox ci bagage kenn du ko jox waaye nag lu mu mën a dox mm. la nga mën ngay def la nga mën nga bal ci loxo yàlla te mosuma lekk xaalis nit tëdd bañ ko ñaan yàlla mosu am est-ce dara nga ne ko lii mënuma ko bari na sax loolu bët bi la sant ma ñaan ma ne la ah lii yow dëgg yàlla du sama domaine mm. waaw dal la du benn yoon du ñaar yoon tey rek tey tey ki la doon ñaan bari na wax ñu rek pour pour gars yi xam ah, nga xam nga man du ma toog fii ne la. diw daf ma doon ñaanloo su ma toog léegi feenee feenee benn waaye woo na ma ne ma defal man nangam ma ne ko loolu mënuma ko da ngay fekk ku tële man fajuma looy def ñaan yàlla da ngay ñaan ku damay ñaan ci xanaa xamoo nag gis nga métier bi ngeen yor yomb na trop <laughs> parce que <laughs> li ma la laaj yomb euh, na xam nga nag bi taf euh, ñaan yàlla mhm. muy dépendre ci nga xam ne papi dala war a may wal du la may waaw waaw foofu loo ciy laajee et loo ciy laajee sax nag loolu tegkatu xel léegi nag yow bisu moo waral yenn sëriñ si di fen client mhm. ndax ba bëgg nga dëggu nit ne la da faj nga ne ko fajuma mhm. man damay ñaan yàlla loolu muy baatu dëgg dëgg dëgg fël dëgg yam ndax ñun di lu ma waaye loolu nga wax ñaan yàlla di lu ma rek waaw ñaan yàlla ñaan yàlla ndax nit ki warut a mën a toog dama lay laaj sëñ bi nañ waxtaan ñaan yàlla jàppoo ne nit ki war naa war a mën a toog sellal li mu li ko war digganteem ak boromam mu warloo ko mu def ko dëkk ndax bu taxawee waa xaaral rek sëñ bi sëgam dëkk bi moo amul ko setul man gëwuma ne yéen yéen ñi mën ngeen a ñaanal nit ba mu dal ko voilà xam nga ah kay déglu ma wala foofu ma tontu la bu fekkee nit ki mën ta toog ci bu ñaan ñaan yàlla sunu borom mu may ko yaa ngi dégg te yow ngay yow yow yow yow ngay bani aadama may bani aadama ñu bokk ci yàlla wax wala xadd kanam naa bani aadama yow yàlla lépp lu mu sàkk nit gënal ko ci ngay nit may nit nga war a mën a takk toog ñaan ma war a mën a toog ñaan ah sëñ bi bu fekkee ne da ne kat. yëg nga ne am na nit ñoo xam ne waaw mais am na nit ñoo xam ne. waaw. bala yàlla bindee léegi mosu ñooy def bàkkaar bu mag muy benn. Mm-hmm. mosu ñooy njaalu. Mm-hmm. mosu ñooy jël mosu ñooy sàcc adu jàmbur. mosu jëw ca làmmiñu nit teg ci lu ñaaw luñ xamul xamuñu ko luñ am lekk luñ muñ ko. Mm-hmm. nit kooku ngay ñaan loo yàlla da ngaa rafet njortu ne amaana moom a gën a sell. Mm-hmm. nga toog ñaan ko yàlla. te nag ñaan moom ba yomal xiyaamati mm-hmm. loo mën a mën a mën a ñaan bis dana jot nga ne dimbali ma ñaanal ma. muy ñaan ngay ñaan ndax ñaari mën kenn. mais parfois nag da ngeen di rangu gis nga kii ñaan gis nit. Hmm. Hmm. dafa dem ba am fu mu yëg ne man fii laa mën a yem. Hmm. xaaral ma ut nit ku ma jàppale ci lii may ñaan yàlla mu oodiw ne ko ñaanal ma yàlla ci lii jàpp ma ngir yàlla jëlee ko fi leneen lu baax mën a ñëw. loolu loolu moo fi nekk ñu loolu lañuy def. doo leen rangu. lu rangu ma leen. xam nga luy rangu mënoo nga dem gis sa beneen morom sëriñ ne ko defal ma ci lii. waaw man. li ma la wax sànq leer na ñaan yàlla mooy waroo mën a dem ci keneen ne ko ah yow nga wóolu ma ma dem wóolu Bijou ne ko wa waxal ma yàlla nangam luy loolu man li ma am xam mooy képp ku ma one ma ñaane ma yàlla kenn laa koy diis kenn mm-hmm. bu subhaana wa taala amul kenn ku ma koy jiiñ amul kenn ku ma koy wax est-ce que yow mënoo koo tàggat de telle ko moom mu mën di ko defal moom ndax jaamu yàlla nga muy jaamu yàlla bokkul lu ci bokk li may différence su ma toog di yow nii ren la juróom nangami xat mosuma xëy naan kafe te sigaruma fukki junne astafurla ak ñaar waxuma bismillah samedi waxuma dara fukki junni astafurla ak ñaar yéenee ci rek su ma làmmiñ wi set sell su ma diggante yàlla fukki junni astafurla ak ñaar nag nit mu ngi koy liggéey ci waxtu ak fukki minute te loolu da koy def pour préparer li nga bëgg a ñaan yàlla yaa mën ko nangu mooy lan mm-hmm. da ngay si boo sikaree fukki junni astafurlah ak ñaar nga teg ci lu ñuy wax bay sëbbi yu maanaam douze mille trois cent douze ci bisimilah rahmaani rahim ñu sakku ni ba ci yàlla subhaanahu wa taala képp ku la wax xaajo yàlla faj aajo gi ci barke bisimilah rahmaani soo paree ci ñaar yooyu nag nga teg ci say lawraat lawraat mooy loo xam ne lu terre à la yaa xam loo ci bëgg ci loolu nga sakku ni ko ni ba ñeent yàlla pour yàlla may la ko loolu nag du ne ñëpp ñoo ko mën a def toog quatre seen diggante yàlla suma subhanahu wa la di ko wax benn soxla pendant juróom nangami at te doo ko mos a faat du ñëpp ko mën te yàlla moo yàlla dafa bëgg ko xale nit dafa war mel ni xale buy namp ci yaayam xale bi namp ci yaayam mu yaakaar na ne lu maanaam yenu yaayam bi du meew yàlla tamit noonu la mel li mu bëgg mooy nga sax ci benn baat di ko liggéey ne ko ah par exemple tey mën naa ne damay liggéey cent quatorze jours bis bi yàlla sàkk ma liggéey douze mille trois cent douze ba dina ma remi wax na yàlla gëm naa ne cent cent douze jours yii bis bu yeggee te amul benn fan boo xam ne fàtt naa ko ci li may liggéey rafet naa njort ne li may ñaan yàlla diw laa jël diw yàlla nangu na ko bu amee cent douze jours amoo benn ngànt mhm. lépp nga def ko bët bu set nga def kul yoomin mhm. ah da nga fa njort ne yàlla waaye léegi sëñ Moustapha euh, am na loo xam ne ma pour man dëgër la di ñaan loo xam ne leer leeru ba xam dinañ la ko may lu ci jaral laaj benn somme bi encaissé dugal sa compte bancaire te xamoon ne ñaan ba xam dina nangoom déet dama la wax benn affaire mhm. ñaan yàlla nga wax mhm. man su ma neexee mhm. ma jàngal ko yow big taf soo ma joxul nangam du ma ko def mais est-ce que yaakaar ngeen dina sotti déggoo ma de ñaan yàlla gi bu la doyul ne xamoo xamoo yàqit ne boo ñaan yàlla du nangu kon bu ci dugg mais yàlla mën naa nangu sa ñaan mën na ko bañ a dama laa question la bu ma la. boo xasee wax ñaan. Mm-hmm. ñaan soo ci am. waaw kenn ngay ñaan moo yàlla. waaw yàlla nag mu wax na ne amul ñaan bu dul nangu. kon yow ñaan yi nga ñaanal ñun ñëpp nangu nañ yow. déggoo loolu de. ko de. Ah. yàlla moo ne amul ñaan bu dul laa wax yow ñaan yi nga ñaanal ñun nañ. képp ku mos a ñaan yàlla nangu na ko. ah xam nga yaa ngi expliqué sànq euh, wax bu am importance. Mm-hmm. soo xëyee nga def say laazim nga ne euh, def say lawraat comme ni ko waxee. doo ci teg deux heures de temps site internet ñëw tiim la nga taxaw toog am yàqin ne yow ki ngay toog di expliquer ci moom xam nga ko maanaam ndax nekkoo di yàq li nga xamante ne mu yaa ngi ko defaraat yaa ngi ko defar ci bi nga yeewoo nga yeewu jàpp ne yow mii kat tey ji da nga ne yaa ngi defar gémmiñ goo xamante ne loo ci ñaan yàlla suñu borom mu defal la ko nga toog di wax ci jaamu yàlla bi loo xamante ne dara leeru la ci waaw xam nga site internet bi li ngay def moom mot trente minutes li ngay li ngay wéteeg sa borom boo ko calculer quatre heures de temps lay day teg. mun mun pour yow trente minutes boobu. une seconde bu fekkoon sax yàq na yàq na yàq na at. may ma mhm. bu ñu toogee di wax ci internet. du ñu jugé kenn. kenn ku ni acte bi nga def. la ñuy dem wëri alquran la la ci yàlla wax ne mooy atte ba. Mhm. ñu ne sa atte lii la. maandu lan la ci yàlla wax. maandu lu baax la. defoo ko yow. Hmm. lan laa ñàkk a màndu mooy lan. bari na. benn bisimilah. ci li ngay dugg yëpp te dara dara dara. dara non bi dugg nga ci te lii ñàkk a tax ne ma lii la. Euh, mu bari. Hmm. ci benn rek. ci euh, aji saar bi waxoon nga ci. dara leeru la ci ndax nekkoo foofu. aji saar ma ci waxoon bëgg dëggoon da loolu. <laughs> waa nekkoo foofu la ma la ma wax la ma wax ci Adji Sarr. Ah. boo ko déggoon doo wax baat bi. mais ne ko fa woon di yow. foofu moom ñam. la ma ci wax les deux concerné rek ñoo mën a wax. la damay wax au fur et à mesure di ñëw. parce que dama bëgg ñi ñuy déglu ñu jëlee si njariñ li ñuy waxtaan. tey imagine toi benn candidat bu taxaw battre campagne am xanaa nag bi élection yi ba fi mu toll nii doone yaa ngi tenir say propos ci li nga waxoon ci Bougane ba tey mu ngi ci président benn. Bougane benn. li ma waxoon ci Bougane. yow loo waxoon ci Bougane. Hmm. waxoon ni Macky Sall moo ko yónni. man. Eh, booy Ndao <laughs> fàtte xaj na fi kay. nañu ko fàtte xaju fi. benn. ñaar. ñu ñëw ci Ousmane Sonko. Hmm. ak Adji Sarr. ak Adji Sarr. Hmm. li big taf di wax léegi nii. xam nga ñu nekk ñu woon Sweet Beauté kenn nag Sénégal nekkul woon Sweet Beauté. ñoom ñaar rek rek ñoo xam la fa nekkoon. ak la ñuy juge ba ak ñamu concerné. ñun ñëpp dañuy toog di xaar fan la mbaxane di mujjee la ma ci waxoon laa ci waxoon la ma ci waxoon laa ci waxoon muy impro mhm. dama wax ne mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko képp ku ci wax da nga ñeme yàlla mu ngi impro képp ku ci wax da nga yàlla mhm. te yàlla dañuy wax ci alquran ne bu doon ñëpp dañuy jëfandikoo alquran képp ku ci wax war ngaa kafaara ji ndax li ñu la sant mooy mhm. njaalo góor ak jigéen di ko def na ñeent nit jógee fële ñëw te duñ bokk fu ñu jóge jógee. Mhm. te day nekk ñeent ñu màndu. Mhm. te nañu xool ba xam xawraay ku góor ki ndax dugg na ci pay ndaw si ba lu leer. Mhm. bu lu wéree nag ñu doog ko taxaw nag teg ñoom sharia. bu dee am nañ am nañ bu ku góor ki maanaam canu na maanaam am na jabar. nañ koy ko yóbbu par l'indépendance jëm ko ba mu faatu. que jigéen ki bu dee moom it am na jëkkër. kasaale que noonu la waaye nag ñu ñëpp ñoo fa romb sharia ñun ñëpp. di waxee bakkan muy juge bi. ba ci enquêteur bi. ba ci ku mu mën a dox juge bi gis nga gum gis gisagum nga ko mu génn wax. dama ne la ba ci juge bi laa juge bi. li muy jugé ci boppam. jugé gul de fekkee. jugé gul de muy jugé mooy waxuma la jugé na. li mu war a jugé yow juge bi en général la maanaam juge boo mën a dégg ci àdduna lépp loo gis mu koy jugé. Mm. du lu mu fekkee. ay PV lay tiim sukkandiku ci àtt. Mm-hmm. te yàlla na ne attakat yëpp yéen bi ne attakat yëpp ñett lañ. Mm-hmm. ñaar ñi safar lañ jëm kenn ki moo jëm na li tax mu wax ko mooy ay ak i kàddu. li tax mu wax ko mooy li tax mu wax ko mooy. parce que li gën a métti ci àdduna mooy nga jugé loo fekkewul te yàlla jëndul lépp xam li xew ci diggante aju sa waaye ñooñu seen métier la te yàlla nattoo leen ko waaye ki nga xamante ne du métier du métier mu war a wax loo xamante ne moo ñu ëppal importance chaque jour ñu toog gis sëriñ si. di def naka sulu noonu ak di nax nit ñi di nax doomu jaamu yàlla yi surtout ñu nekk extérieur. yow moom benn baat rek xam mooy sëriñ si nax nit ñi. parce que sëriñ bi parce que soi-disant sëriñ lañ fi teg parce que soi-disant sëriñ lañ fi teg ñun tey jii bu ma fi tegee koo xamante ne football la ñuy waxtaanee football la ñuy waxtaan su ma fi ah, tegee keneen loolu la ñuy waxtaan mais yéen ñi nga xam ne charlatan yi nekk site internet yi sonal nit ñi yéen la ñuy teg ci plateau bi ngeen tegee yéen ñoom lañuy waxtaanee pourtant nag euh, télé boo mën a dem li fi musiciens yi di jàll par jour musiciens yi mm-hmm. musiciens yi mm-hmm. ak théâtre kat yi mm-hmm. lii jàll ci ci maam ci seen YouTube yi. di ko jàll ci télé yi. amul kenn kenn ku ko jàll ci sëriñ ci. parce que ñooñu xamee nañu loolu. foofu lañu war te pourtant ñoom wax amul njëriñ. mais ñooñu foofu a dox bu toogee balaa jóg dana fa jàng benn aya jóg dem. mais xam nga remarque bi bii ju def nii parce que dañu ni jël benn site woo ko def def trente minutes d' émission presque benn dix minutes ngeen fay wax wala benn cinq minutes ngeen fay wax loo xam ne la may faj lii dinaa ñaan vous parlez que actualité li ñu des yëpp vous parlez que de buzz. léegi actualité même léegi actualité. sëriñ droit wax ci. ah ah, ah, ah waxuñu amu droit wax ci de. léegi ñun amuñu droit ñun au site internet wax lañ bëgg wax comme ci réew mais façon bi ngeen koy defee. peut-être façon bi ngeen koy defee façon bi ngeen moom ngeen mais mais li sëriñ si parce que yéen du ngeen ay analyste politique yéen li ngeen di wax peut-être que yàlla may na leen fasaaxa boo xamante ne bu ngeen waxee benn biisu dégg ko wala benn big taf dégg ko wala keneen ak keneen dégg ko te li ngeen di wax dara leeru leen ci te wóoru leen te li ngeen koy analyser du noonu analyse politique analyse politique école bu ñu jàngee mais est-ce que nekkul sénégalais waaw même ah, dañuy toog nga wax ñu benn mbir ci politique bañ ba tuddee ko analyse mooy loo xam ne ni amoon argument yow li nga xaar nga wax moo tax boo gisee état bi. Moustapha état bi respecté euh, euh, mooy xam nañu ñun li ñuy wax ak li am. sa fa ah, yow da ngaa commencé moo ma jéem <laughs> Moustapha dama la ah, man ba ma dalee ñaan yàlla ba tey. Mhm. mosumaay def émission jóg te waxuma ci actualité. waaw d'accord actualité nag actualité danañ ci wax mais actualité xam nga dafa mel ni man ma toog tey ji man en personne man Bijou Ngoné je me permets pas du tout euh, invité Moustapha Dramé yaa ngi dégg di waxtaan ci élection c'est pas ton domaine tu tu tu connais rien du tout en fait. pourtant nag ka nga dalal journaliste bu mu mën a do ne muy def ba mu lay tontu. mën naa la laaj ci sëtu bi ci taxawaayu dëkk bi. Hmm. yaa ngi dégg ci dund as. dëkk bi ni ñu ni ñu demee. dama ne la yaa ngi dégg en tant que nit koo xamante ne yaa ngi nekk kilifa nekk ci réew mi nekk ci dëkk bi di ci dund mais tey mënuma invité Moustapha Dramé naan ko lan nga xam ci pétrole réew mi lan ngay wax ci pétrole réew mi yow loo xam ci pétrole réew lu dul loo xamante ne yow. waa léegi damay laaj damay laaj te noppi. waaw léegi waa non damay lay wax dama lay wax argument parce que yow. lu ñu lay waxal argument argument defal naa ko ma pare. du argument bàyyi ma ma pare sama question. Lamine du lekk morom te ñëwul defal naa ko rek ma ñëw duma ne du ma invité Moustapha di ko wax ci loo xamante ne ci affaire pétrole. tu ko connais pas du ma la ci wax loolu du ma ko def. du ma teg Moustapha Dramé muy waxtaan ci euh, euh, nu mu nu mu nu mu tuddati woo ko ba mu ñëw naan ko euh, affaire étrangère lan ak lan nga ci xalaat. Moussa Dramé tooñ la parce que tey maa ngi lay dugal ci loo xamante ne maîtriser woo tey li nga xam ne mooy sa domaine ci loolu la ñuy ak yow. Mm. mën nañ la wax tey par exemple sëriñ si nga doon nga toog nga ne yow sëriñ nga da waaye wàllu ñaan yàlla nangam ak ma ne la yan jéego nga defal société bi pour ñaan yàlla tey ndox mu bari mi nga xam ne mi ngi gaañ yenn askan woo xam ne yaakaar nañ la pour nga ñaan benn yaakaar nañ la pour nga ñaan encore euh, euh, euh, ci ndaw ñi nga xamante ne ñi ngi am problème sante mais tey duma ma la teg naan laan santé bi loo ci xalaat. Ah, parce que doo non non xamoon dara ci santé bi je désolé. parce que doo ah, médecin léegi nag da nga may laaj ba ma tontu la xam nga yow da ma doo gis te la première fois maa ngi ñu di waxtaan. ñu ngi gis njëkk a gisante ma génte sumbulu xam nga baare ma di tëj noonu ma taf la ci oto bu mag bi foo ne. <laughs> oto nga wàcc rek ne ma xoolal Ousseynou naan ko nuyu kii sa xarit bi la. Ousseynou Kelle soo baa ngi nii. Ah. ma ne ko kii di sama xuloo waale mi ngi may door a gis tey mais li ma yàq yëpp mi ngi may door a gis mais mu mu mu def ak man yëfi taalibe nu yoog man normal ndax man xam nga ku ma gis ci antenne bi ak a maa gis bàyyi ñu nag juge gi mooy juge gi mooy mënoo toog nga ne man xaw ma ci lenn mais pétrole yow nag cee dara nag loolu nag moom waaye déet ba ma laaj ne ma bi waaw bul fi njëkk commencé génne ne pétrole bi ne dëkk bi am na pétrole jaay nañ ko uh-huh. dëkk bi am na sur am ko am na gaz jaay nañ ko uh-huh. ba léegi ki nga xam ne ne mooy président de la République ñu dénk ko réew mi uh-huh. moom mu gën ci am prévu leer ci léegi nag ñun Sénégal yëpp ñu ngi wax. waxut ci la moom laaj na ma def ñu Sénégal yëpp rek wax ñeme yàlla rek. Sénégal yëpp kenn xamu ci dara ci affaire pétrole bi ak gaz bi jaanu jaay ko. affaire ndax kenn gisu <laughs> <laughs> boo mën a dem. waaw plateau boo mën a dem. dalal nañ fa koo xam ne boo ko laajee defut médecine. Mhm. amul fu mu ko jàngee. Mhm. te mu ca wax xalaatam. wax sa xalaat non non mais loolu mooy erreur yi ne moom la ñuy def. waaw loolu nag kon kon yéen ma ne ma naa la ko laaj ma ne la erreur boobu man du ko def. man lu may def lu may def. saanu sëriñ. xam a rëy bu ñu xoolee Moustapha Darame kat a ngi koy seetaan ci internet bi xam nga tey euh, euh, euh, dama la bëgg a pour ñu bañ a réeroo tey jii Moustapha Darame mi ngi ci internet bi ñu ngi koy seetaan am na influence nit ñaa ngi koy seetaan réseaux sociaux yi nii yëpp jar na tey jii am nañ ci droit ñun émission confrontation ñu teg Moustapha Darame laaj ko ak waxtaan ak moom parce que émission bi du émission bu gàtt du émission bu ndaw émission bu mag la mënuñ cee dalal koo xam ne kenn xamu ko. Mhm. parce que conception bi mënuñoo dalal koo xam ne tojul fenn comme ni ma taamu di ñu parfois ñu tooñee ko ak benn invité yow wala dara mais tey bu ñuy invité bu ñu zappee rek dañu bëgg jàkkaarloo ñu ne ah tey de Bijou la ak Moustapha wala Bijou la ak diw waaye confrontation mënumaa jël sëriñ ba nekk fon fongale mi ak koo xam ne kenn xamu ko ma jël teg ko ci plateau bi. day dañuy dal nag parfois nga gestu service commercial wala ay satu woo la ne la da ngay dalal diw nga dalal diw que neex la que mu xari la laaye léeg-léeg ñun bu ñu toppee actualité confrontation du ñëppay ñëw de du ñëw de yàlla dogal na nag dañ lay nangul notoriété bi la yàlla may parce que nit ñaa ngi lay si seetaan du confrontation lañ la xamee waaye xam naa ne di nga ci amee beneen position bu bokk la bi nga am ndax xam nañ la ba pare ndax leer na ndax am nga question yow du jeex moo tax nga toog fi tey bismillah waaye dama la doon leeralal foofu ndax leer na leer na bismillah jërëjëf ok ñu ñëw ci ci ci ba tey dañuy ñëwaat ci actualité ah euh, ak yenn sorte yi nga xam ne sëñ Moustapha Dramé jot na ko def ci lu jëm ci euh, actualité sànq laal nga ko mu jëm ci wàllu politique chaque fois dañuy gis euh, lu jëm ci politique wala làmb maanaam wàllu seet gi da ngeen di jékki ne gis nañ ni kii mën na daan kii kii dina gañe fii kii gañe fii te parfois dama mës a dégg ci benn borom xam-xam ñu ne li si xaar ci benn aajo moo tax ñu koy def Eh, ñenn ña da nga gis ne tëdd naa dem gis naa ne kii dina def lii kii dina def lii kii dina def lii est ce que boo ko bokkul ci dëgër fit du dëgër fit lan la coupe du monde bi war a am 2026 hmm. mu ngi war a am Qatar Qatar déedéet Qatar déedéet du Qatar Qatar 2022 la dëkk bi leen ak États-Unis non non États-Unis lay am ak Canada ak ak même même même bi taf da nga gàgg ma lay gàggante waaw non gàgguma waaw dëkk coupe du monde bi war a am 2026 hmm. tirage nañu ko ba xam nañ dëkk bi ko war a organiser hmm. xam nañ ñaat équipe ñoo war a dem. Mhm. xam nañ équipe bu ne heure bu muy heure bu mu war a fubal. Mhm. te loolu fii ak quatre la presque. Mhm. dégg nga. waaw programme la rek. mais ma programme la. noonu la amee nag ci yow loo réeree yow loo mënul gëm ne li li yàlla mën a ko may nit. muy programme nit. nit toog sakku nu ko ndimbal ci yàlla. ne ko de man de nangu la bëgg xam. yàlla ci coobareem du moom ne mu wàcc na ko ah li nga bëgg xam de mooy bëgg taf la. nangam tudd nangam sant déedéet. Mm. waaye mën na xam saaru lum la yenkenal xaw laa dimbali tuuti as lëf ca loolu bëgg xam. Mm. par exemple. Mm. ñaat nit ñoo fi gént ñoo xam ne duñu sëriñ. seetluñu sax te jamono ba ñuy génn sax mun naa am ñu nga sobe. gént nit génn àdduna nga xëy ñett fan muy dëgg. pourtant géntoo yàlla dimbali na la. mu ngi mel ni dee dañuy wax ne. Mm-hmm. dee amul kenn kuy bett. képp koo mën a gis ci àdduna. mu war a génn àdduna yàlla dana ko envoyé SMS mu nangu ko nag nangu ne lii man may may sant sama yaram nii di yàlla mhm. wala yow sa mbokk nga nga am loo yëg mhm. fekk dëggoo ne diw gi dee na doxale ah daka jëkk man daal xam ne ma nangam boo doon nit koo xam ne nag am na as lépp lu muy dimbali ko ci yàlla mhm. boobu jamono mën naa xam ne man de dama ragal ni lii war a ñëw suma njaboot moo mel ni nangam moo tax may sentir lii nga commencé na ah diw mu ñëw nga ko ah, génne sarax li ma gént nangam par exemple tey. ah sarax day fànq. may may may par mm-hmm. xam nga a sarax day fànq. Mm-hmm. est ne ñu fi gént ñëpp nangoon nañ ne euh, kere boo géntee jël yàpp saam ko yàpp. Mm-hmm. saam ko. dëj la ba amul sax du yàgg nga gis dëj. ndax naqar la bu ñuy partagé kenn ku ne am ci. dëj day métti kenn ku ne sentir tamit sentir. noonu amee nag ci nitu yàlla yi. ci ay nit. ñu taxaw bëgg def listixaar sàkku nu ko dimbali ci yàlla ne yàlla man li laa bëgg xam yàlla wan ko ne ko nangam xam na ñoo xam sax duñ ci yegg xanaa xamoon ne boo duggee fii ci àll bi Saalum fii am na paa yoo xam ne te ñoo réer wi wala ñu ngi lekk cere mbuum te wala angim bu ñu la géntalee bis tafi yow dara du jaas wala balaa dara dañ ñëw ñu yëg ko lu mu ngi am mm-hmm. ñi nga gis nag ñuy mbuboo xaar wala seet ñoom bi nag loolu la ñu mm-hmm. ba noppi ñëw nag di ko mbuboo waaye nag ñooñu kan ak kan la Mm. yow da bokk ci ñooñ ci ñan. ñu ngi ci nii léegi. mën naa ci ñi nga bokk mooy. Mm-hmm. képp ko ma wax ne Moustapha Dramé li saxaaral ma. Mm. lii ngeen di jàll moom sànq salaam jàngal laay def. Mm. jël sa tur sa turu ndey sa turu baay. xaddat tamit nag ñetti yëf yoo xam ne nit dañ koy bàyyi ci seet. dëkk bi nga dafa am solo. Mm-hmm. bis bi nga ma sant li saxaar dafa am solo. ba ci heure bi nga ma oo téléphone di ma li saxaar dafa am solo. biddew bi ci la bokk. biddu man bokk ci seen mbir. ah parce que xel mënu jum hmm. pour nga jàng ko mën xam xam vidéo hmm. mën ko maîtriser da nga fay trois cent mille francs nit pour mën a dimbali ko mu jàngal mu mënu jom du ñëpp ko maîtriser na ci maanaam ci jamono hmm. te xel mënu jum boo ko gëstu ba ci digg ba mënul sax tax nga xam dëgg-dëgg mbiru nit ki ah. nit ki li nga mën a xam ci moom bokk na ci noo tudd diw ma jëm a gëstu nag ci mbiru yàlla subhaanahu wa taala léeg-léeg nga def ko nit xëy gis ko mu sàngoo malaan gu ñuul mais yow doo xam lan la. mais xam nga xam nga xam nga sànq da nga da nga ñëwaat ci beneen point parce que temps bi daf ñuy daf ñuy daf ñuy xoj. Euh, mu wax tamit euh, ci ci alalu nit ki nga xamante ne am na alal ci showbiz bi comme yow waa da nga sonal waa showbiz bi sànq da nga nañu dugg ci point wu showbiz bi. Hmm. nit ki nga xam ne am na alal ci showbiz bi di ci def lu baax ndax li muy def dagan na wala daganul. man daal dafa am ku ñu wax Thione yal na ko yàlla may fan yal na ko yàlla may yal na ko jégal bàkkan la bëgg wax mm-hmm. woyof suuf ci mm-hmm. ma ñaanum yàlla mukk dee bàyyi fi boîte waaw te mu ne ñu bëri di fréquenté ci soo bis ñii mm-hmm. la ñu mel dañuy yor ay poson jukko ñëw wax lii dem wax la le mhm. léegi nag la réalité mhm. lii dëgg kan moo ko mën a wax yàlla suma sama taala moo ko xam d'accord mais ñi ñi am li vision ñi am xaalis ci show bi te di ci def lu baax salaamaaleykum waaleykum salaam suñu invité bi dafa tardé woon salaamaaleykum waaleykum salaam am moom dafa fa surprise nga def de waaw doy waar <laughs> ça va ça va. ngeen def lu weex taal day alhamdulilah. ñu am ñu ci showbiz di ci def lu baax. balaa loolu waxoo ma woon lii. Mhm. waxoo ma woon ne ma. Mhm. dégg nga ma invité ma ak suma yaay ju sa Saliou. Mhm. waxoo ma woon loolu soxna Aida soxna Aida loolu ñu dab daf ñu dab daf ñu dab dabuñu. ankay daf ñu dab dabuñu bi taf la programme la. waaw non dama ciy ñëw man xam nga man dama am fula. waaw ah, waaw fula moom lii. kii kilifa la man kilifa la mhm. boo koy dalal oo ko nga personne nga dalal ko mhm. man soo may dalal à ah, personne nga. mais nag invitation confrontation ñu ne seet tamit. Euh, côté boobu tamit xaar damay bañ a xuluwaate yow parce que dañu nekk ci point bu am solo. ci mhm. waxtaan bu waxtaan bi dafa ko xuloo bi jeex na. néewoon ñu continuer dañu nekk ci point bu am sens. après ñu ñu xuloo ci képp ku ci mëntul nekk ak koo mën a dox. li njëkk aram. mooy amin gi. yàlla ko tere. par exemple yow pour nga am alal. il faut nga musique. waaw kii am alal te te muy musique te am alal euh, euh, euh, exemple di ci di ci yóbbu ci par exemple moom mii Wally Seck da ko yóbbu Màkka di ci yóbbu ci Màkka joxe ci xar tabaski joxe ci nangam def ci nangam lan la ci lan nga ciy wax yow ban jàngat nga ci am. dama ne la borom xam-xam ñaar lañ ci wax. dañuy wax ne am na ñu ne. boo amee lu xaraam boo jëlee alal boo amee xalaal ju xaraam dugal ko fu dagan kan ko defal kooku am na tuyaaba. waaye yow en personne mi nga xam ne yow yaa fàggu alal ji. mënu ci am tuyaat. ah bon bàkka parce que alal ji boo ko xasee tegu sa rek. mu ngi nekk ci métier boobu yëpp. bu doon loolu jaamu yàlla gis nga wax benn affaire ci dundal seen ay njaboot mm-hmm. dafa am alal joo xam ne mënut sax tabax jumaa. mënut sax tabax mm-hmm. jàkk am na alal joo xam ne dem màkk. mais alal jooju naka lañ koy alal googu lu muy jariñ moom kon. bépp alal boo xam ne ci lu haram nga ko am alal ji mënut dem màkk. Mm-hmm. waaw bépp alal boo xam ne ci lu haram nga ko xam. alal ji dem màkk mais kon alal gi ñëw ci yow yéen a ngi koy seetlu. dafa am ah alal jan bii ñëw ci yéen dañ la wax ne jus ñun dafa raam. non damay ah. laajte. Ah, <laughs> ah, bu fekkee ah, yéen kat ku ne a la a tax ñuy laaj dama ne la hmm. nit ku nekk laa la ngay amin amin bu la ngay non non loolu foofu de dama ne nit ki nga xam ne mi ngi am alalam hmm. di ñëw est moom peut-être jàpp ne loolu la war a wax hmm. euh, euh, euh, est-ce que nit kooku alalam jooju xam ngeen fa muy jóge fi muy jóge est alal bu nekk ngeen recevoir xam ngeen fi muy jóge xam nga Moustapha Dramé mu tudd ñaan nga dem sàcc fukki junne ñoo jox ko moom yoon nekku ci yoom sàcc parce que xamut te yaakaar naa ne ba doon koy lii ma la jox na lu mu sàcc la du ko jël. mais ñi ñuy ndax waaw damay dund damay damay dund mm-hmm. ndax tey boo sàccoon xaalis mm-hmm. bi porté plainte mm-hmm. ci yoon laa wax yoon fii rek. yow sëriñ bi boppam da nga daanu wala ndax complicité lay jàppee. noonu amee ci yàlla nag. heure boo jëlee alal. mais bu fekkee nga xam ko ci kaw nga xam ko. boo xamee. waaw boo xamul. te xanaa xamoon ne bu dee fii sax ci yoon. même boo ko xamul balaay leer da nga dem brigade wala ci kaw procureur léegi ne la mel rek. mais ci kaw nga xam ko xam nga alal jooju tamit nit ku ñëw alal fay la ko. xam nga bu fekkee yàlla ne bu la jàppee bu dafa xaraam. Hmm. yow waroo cee am waru kon yow musique wàcc na la waroo ko def. Hmm. am ci alal quoi warul la. Hmm. ba ci am la yóbbu ni màkk. dafa xaraam xaraam na waroo ko def ba ci am dara di yóbbu ni màkk. mu ngi mel ni ah, leneen tamit njaaloo yàlla ne jaasi boobu dafa xaraam. sëñ Moussa na di. Ndiaro. Mm-hmm. Mm-hmm. non non non waxuma jël alalam di ci liggéey. moom ko di ci yóbbu nit màkk nga ne baaxut. dama ne la. Assane ah, Moussa yow est-ce que mu joo soxor. man yaa ngi dama ne la képp ku fekk lu yàlla xaraamal. Mm-hmm. loolu la nga war dem mooy boo ko fa dem waroo fay nekk. di upp ruq boo jaar ba ci am dara. bu la ko yàlla nattoo. nattu yàlla amul. Ah. xam lu am. topp sa bakkan loolu nattu nattu mooy feebar yàlla nattu la ngay jullit nga xëy feebar wala mu jox la alal ci lu dagan nga xëy ñàkk lu nattu la mm-hmm. wala ngay sëy yàlla nattu la mënoo am doom mm-hmm. lu nattu la mm-hmm. waaye nekk ci dara nga xam ne lii lu xaraam la nga nekk ci ñu wax nga naan nattu yàlla la lu loolu dafay ñu doog li borom laxdar yi doon jàngale ne ku muntu ne ci bàkkaar yàlla la bàyyi nga dem tuubi ko bu fekkee tuubi woon nag lu nga toon naa ne wala xataa yaxdi yallaahu damay xar ba yàlla gindi ma mm-hmm. ma doog a ci yoon mu ne mu ngi mel ni képp ku wax loolu rek mu ne yow yaa ngi nekk ci màndaga taxaat yi te mu ne kii wax loolu mm-hmm. ñettan ko yoon wal xislaani ak wattan ci base mooy gàcc àdduna di ko am ak àllaaxira te beneen bi da dem ba yàlla nattu la soqol dootu mën a dégg dëgg mm-hmm. da gis nit ki wax nga xam ne li dëgg la nga am sa fulla sa fayda bañ ko te bañ ko bañ tegoo ko fen foo gisee ku mel yàlla nee na ñaar da ko joxe musique déglu musique day xumaat loo war a xamaat bëri na parce que la nga yow da ngay ba pare balaa ngaa wax kon yaa ngi déglu musicien yaa ngi déglu ay waali yaa ngi déglu xam nga ñëpp te booy jël ci exemple ci ñoom nga jël exemple euh, xanaa xamoo sax ne dafa am benn laay bu gën a garaaw dafa am benn bal ci dama ko desee kii ba ñëwee ci laaj yàlla tere mi. boo ko laal doo am bës benn kan. waaw kon nañ ci génn ñu dem feneen bisimilah. <laughs> yaa expliqué li a da ngay dem da ngay dem ci benn laay yàlla du wax musique dafa haram. Ah. am na benn wékk bu ne bu haram bu daganee ñu ngi ciy xaw ma lan gis naa ci wéy bi. ah yooyu yooyu yëpp xam nga xaw ma lan. mais dafa am oh, li ma jaaxal yëpp ngay déglu yow yëpp nga xam. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëpp nga xam yonent talaal baadurul alayna loolu ak yi doon tëgg ay tambour li ngay def nii sharia da ko tere damay laaj bul tëkkalee tëkkale non non non non tëkkalewu ma dama laaj soo tuddee baatu musique non pourtant bëgg jël dawal pourtant dama ne loolu lan la ko teeroo lan la lan xam nga dama ne bi muy bi muy jóge doon teeroo talaal baadurul alayna n'est-ce pas waaw kanaa xam di utiliser tambour bokkut ak musique ma ne loolu lan la loolu hmm. du musique lan la loolu tamagu tëgg la tama ci fu mu bokk tama gu toog maanaam xam nga loolu jëmmi baat bi sax jëmmi li ñu tëgg. Mhm. pour misaal la ko tama laa mën a wax. mais tambour la rek. waaw même mhm. ah. Mhm. yéen yàlla moom salaam yéen yàlla moom salaam salaam. salaam salaam lañ ko doon defal bokkut ak lii. xam nga tey jii. ñii guitare guitare. guitare dafa garaaw. xandeer dafa garaaw. tëgg weñu ndaw yooyu gars yi di nga yor dëng dëng dëng dëng dëng. xandeer weñu bool yu bëri yi. ah ok dafa bëri ah batterie dafa garaaw. yooyu yëpp nag. ah da lay yóbbu foo yooyu yëpp nag bokkul ak leen ba ci mbongo mbongo. mbongo bongo bongo. Mm. ak taaxuraan. waaw yow foo xamee ni. dafa dafa dafa raam. ay marimba xam nga marimba. yëpp xam nga Babacar Sall ay ndeer bongo. xam nga <laughs> xam nga ñëpp. bongo <laughs> léegi yow man ma laaj loolu loolu lan la lañ ko doon teeroo la la du musique. lañ ko doon loolu du musique. lan la loolu bàkk la. bàkk tagg yéen tamit sallallahu alayhi wa sallam loolu mu ngi mel ni géwél bi taxaw di la taggal say juróom-ñaari maam. Ah, te pourtant tëggut dafa taxaw rek. kon ñi ne la yooyu bi taf nangam nangam gis nga loolu noonu. kon loolu araam boo ko takk yoon mbongo. est-ce eh, que ba ci nga ñëw télé musique la yow boo dee safara nga jëm. <laughs> mais kon yow kon ñiy tagg. télé géwél ñi tagg yi ñoom euh, lañ fi toog. kon li muy fi jàngale musique dafa araam. yi mm-hmm. dafa araam yi dafa araam. ñun ñoo ëpp oustaz ci télé yi. sens contraire moo am. Mm-hmm. mooy tiyaaba ngeen ci am. waaw ok baax na léegi boo kenee mbir ni taxu si jàngale li la arrangé rek ngay wax. waaw léegi man lislaam <laughs> <laughs> lay ne moom nga bëgg wax. Uh-huh. yow kenn du loo ko teree wax moom ngay wax. dañuy dem nuyu uh, uh, uh, sa beneen gan bi Mouhamadou Moustapha. waaw ñu ki ñu dalal comme sëñ bi nee na waxuma koon maa ngi ciy tuub. Euh, waaye nee naa ko lu ñu dab la moom gëmu ko parce que bi mu jugee moom waroon nañ ko jël bu yàgg mu demoon màkk non moom sax wax dëgg yàlla boo ko invité da jël plan B parce que du ñëw waaw ci leneen moom pour wax noppi rek nga war def euh, parfois sax parce que du ñëw. suñu yaay ji ñu dalal. du ñëw plateau magum jëmm. mën nga koo li nga xamante ne minimum ay millions la ñuy lakk nii pour toog nii. taal caméra yi daal di toog. ñuy xaaraat yow sa ñëw ak sa toog. xamul tax sax ma duñ ko defaat parce que suñu yaay ji li tax nga mën a dalal ku mm-hmm. amul ak problème ku ne naa ci loolu. amul ak amul ak problème ku ne. waaw xam nga parfois ngi sëriñ bu ne sax bu ma boolee kii moom nee na bu ma boolee euh, Mara Mara tamit doo comprendre mais moom euh, suñu yaay ji xam ah. li nga yow li nga ciy waaw xaar waaw maa ngi ñëw maa ngi ñëw def may ma déglu ma yow yaa may may yaa may may de boo li nga bon sëriñ li nga ci li nga ci namm yow mooy teg leen fi pour ñoom ñu tisati nekk ay noonu xaaral loolu nag xam nga tey yow xam nga tey boo jëlee maraange sax nga dégg ne ma maraange problème waaye dafa nànk mu yeggali doo ci bëgg xaaral mu nuyoo bëgg ci yiw xaar ma di koy armé nga may jaay fi mu toll nii da ngaa jógee da ngaa jógee bango. si boo jógee bango ñun di ay classe rek lay àndal nag. jógee bango de sama kër laa jógee. d'accord ñun mu toll nii donc ki ma ki ma dala tey muy suñu yaay. confrontation bu ñu waxee soxna Aida ñëpp ci dàkkante rek bu Serigne Sall. ñëpp ràññee ci fi mu nekk ñëpp gis dëggoom ak xam-xamam ñëpp naw ko Euh, euh, ñu koy ziyaare xam naa da ngay da ñuy defal ñaan rek parce que ki jóge Màkka moom tey da ñuy da ah, ñuy tey moom la dalal pour waxtaan ci lu bëri bëri moom itam sëñ Moussa waaw kii sama sama xarit la dëgg la hmm. loolu moom dama la koy seedeel keroog ndeysaan bi ñu dina émission ci guddi gi dama gis euh, ma kaay fa dem yàlla dama def oto <laughs> ndax wax dëgg yàlla man mënuma koo invité confrontation dëgg la moom mi man mënuma ko loolu xam naa ni lu mu yàgg bëgg la waaye man mënuma ko personnellement euh, ndax wóllëre bi dox sama diggante ak moom ak Serigne Sall bi dox sama diggante ak moom mhm. euh, su ma juumulee li ñu gisee maak yow moo ëpp li ñu gisee maa moom ndax bëgg bi nga xamante ne dox na sama diggante ak moom mhm. euh, waaye Serigne Sall rek laa koy bàyyil moom moom du ma wax moom mun maa wax ci ay mbiram waaye ku ma wóllëranteel la loolu dama la koy seedeel bu baax a baax yàlla saxal wóllëre di la dalal bu baax a baax di sàkku ñaan itam eh, ca fa nga jóge ci bërëb bu sell bi ñu lay wax asalaamaaleykum wa rahmatulah. waa asalaamaaleykum àdduna wërngël képp maa ngi ziyaar ñëpp. Mm-hmm. di balu ñëpp àq di bal ñëpp àq. Mm-hmm. di wax ne soppe yi xarit yi. kenn ku nekk am nañ cofeel ci man mais li ma am ci ñoom ñoo ko raw euh, di ñaanal nag sama bunt ci sëriñ Touba Seexul Xaddim di sëriñ Mountakha Bassir mhm. waaye di ñaanal sama yaay ci murit mhm. euh, ci ëttu sëriñ Touba di sëriñ euh, di soxna soxna mu Mountakha mhm. waaye di ñaanal sama yaay ci jëwrinu murit kër sëñ Touba. Ah. di mer Gamou jóg nga xam ne moo nekk Masalikul Jinaan di jëwrinu jigéen ñëpp waaye di ñaanal sama nijaay Mbackiou Faye mhm. di ñaanal sama bàyyi bopp bi su ma ko waxee àdduna bi yëpp xam ko euh, maa ngi lay ñaanal bu baax a baax Sénégal xam nañu àdduna xam nañu mhm. waaye nag di ñaanal sama bunt ci Serigne Saliou mhm. di Serigne Cheikh moom Serigne Saliou di ñaanal génération Serigne Saliou yi waaye di ñaanal waa keppaaru soxna Aïda moom Serigne Saliou ndax euh, Sénégal ci laa bokk euh, soxna Aïda nekkatul soxna Aïda national soxna Aïda international la kon ci biir international boobu damay ñaanal doom ji nga xam ni dafa gën ci man wan ma lu ma kenn wanut wan ma Seyduna Muhammad may wax ne loo liggéey dana barkel te loo liggéey dana yàgg te sa bës doo ko wuti bës bi dañ koy xëcc ba ci say loxo tegal la ko ci say tànk te dina jar dina xumb dina yàgg bisu maa ngi lay ziar mm-hmm. delloo ziar soxna maa ngi lay ziar bu baax di jox sa wàccuwaay mm-hmm. di nuyu borom kër gi El Hadj mm-hmm. waaye di nuyu sama sëñ Moustapha nga xam ne li ma gisanteeg moom gisantewu ma koog biisu yaakaar naa tase nañu ñaari confortation bi mooy deuxième confortation mhm. parce que tase woon nañ ci kër sëñ Cissé mu sëñ Babacar ci ngénte matin tey ñu tase soir kon xam nga ne yàlla rek a mën lii mhm. normalement nag ci ñaar yi ñu tasee mhm. ci wéttali gi ma wéttali ci alaaji gi ci weex gi ma di la <laughs> ziar la jox sa wàccuwaay incha allah eh, eh, lan ngay wax ci li mu wax li mu mujjee wax léegi nii waaw parce que man bi ma ñëwee fekk ko fi sax xaw ma woon ne mooy sa invité parce que li ma njëkk a jaaxal mooy bi ma ñëwee gis ko keneen laa ko tegoon pour man beneen keneen nga invité parce que dama amoon lu ma déggoon ci baatam. Euh, muy confortation du ma fi. waaw loolu nit ñi sax ñëw du ma fi mës a ñëw. Mm-hmm. kon bu ma ko fi fekkee dama naan. Euh, la Ablaye Wade waxoon. Ah, ñëwaat na mooy wax waxeet ci moment politiciens yi kon xam naa ne wax waxeet moo ñëwaat. Mm-hmm. kon ma bëgg a gëm ne. Euh, li mu wax mën naa ne ci li mu yaakaar. parce que kenn ku ne sa xel waaye man mi nu jox billet màkk bi ma ziyaare ji bayti laay ñamata seel bayti laay ak bi ma ñëwaat ñëpp xam nañ ne yonent bi bég na te ñi ma fa ñëpp maa ngi leen di ziyaar waaye nag mën naa ne ndax ci liggéey bii ñuy liggéey mënul ñàkk yi day am façon ak modèle façon modèle nag boo ko boolee day doon loo xam ne rek ci jëmmi nit ki la nekk waaye ma yaakaar ne bu dee waykat bi bu wayee bégal nit ñi ñu ne musique xaraam na waa mën naa ne waaye benn conseil rek laa ko bëggoon a laaj pour mu dimbali ma ci mooy koo xam ne dangaa taxaw publiquement kàcc ne lii du am ci Sénégal wala lii du ñëw ci Sénégal ndax musicien bi saa yu musiquee mu neex saa yu wootee mu neex te Wally kenn ku ne xam na ne moom laay cité parce que moom moo yóbbu màkk te dama dégg ci biir màkk gi mu ne loolu mën nga cee am tuyaaba waaye kilo yóbbu mën na cee am bàkkaar ma yaakaar ne ki fekk sénégalais di xaar benn mbir àdduna wërngal képp toog di ko xaar mu jël seen xol jël seen xel jël seen yaakaar muy fubbal Sénégal kenn ku ne xam ne coupe bi fi mu nu yóbbu woon ñun ñëpp ñu taxaw di génnee sarax di ñaan yàlla yal na yàlla may sénégalais yi ndam ma gis ne moom mu génn ne coupe bi du ma sa ñëw Sénégal ma bëgg xam ne kon bu waykat bi yóbbu demee safara kon kàcckat bi fan la war a dem te ma dégg na yàlla li mu gën a xaraamal ci lépp mooy kàcc fen du ko jéggale ma bëggoon a ci jéggalu nag ci kàddu yi ak fi ma jóge ma bëggoon mu utal ma foofu ay leeral tuuti rek ma doog mën a gindi mën a jàll da nga ñëw sur la défense sama gan la tamit non dañuy waxtaan soxna si euh, léegi même ma tontu la. dëgg su ma tontoo bu noppi. ñaar yam dimbali ci lu bari ñaar mooy am ñaar. may ma may ma waaw léegi bàyyi ma eggali sama émission. kii maa ko gën a ñaaw làmmiñ. waaw bàyyi ma eggali tamit nag moom sëñ bi maa ngi jégalu maa ngi wax man Adja laa te lu duma def lu ñaaw. waaw Moustapha xanaa ne mhm. euh, Moustapha kenn laa invité Moustapha donc Moustapha waaw Moustapha waaw Moustapha di ma déglu wala doo ma déglu waaw Moustapha Moustapha waaw Moustapha taxaw moom bilaay maa ngi euh, jégg bi taf bi taf Moustapha di ma may ma eggali waa xanaa man wóolu nga ma ci sama émission waaw wala déet waaw naa la wóolu mais waaw léegi bàyyi ma ma eggali li may wax ni non non non xaaral rek ma eggali li may wax da ngay yegg comme sa xuy ma Euh, élégance dinaa ko tontu nag ci timis dinaa tontu su paree. waaw dama la ko ñaan ngir jëm euh, dama la ko leeral leeral rek xaaral moom it. waaw léegi Moustapha beneen bi nag ñaar moo ñaar. a yar na ko am am du ñibbi si si loolu yar na ko bi beneen yàlla xam ne bu ma góor waxoon bu ko góor waxoon la waaw Moustapha ah, may ah, ma eggali parce que. waaw si bu góor ndax góor ma ci émission wala ndaw dangay kat. dégguma. góor su ma waxoon toog fi ne ma nangam da nga kat. ci waxin bi la waaye waxuma la pour yow. parce que yow ah, ma ma loolu moo gën a rek. xanaa nag wax dëgg yàlla sama place bi matee naa ko. seetaan seetaanal yow tamit seetaanal dàq ci daje dëgg. Hmm. <laughs> seetaan dàq def sànq yi ak may def lu ma naqari am nga ku la naqari yàllaay tey lii lay def casquette les hommes man Adja laa euh, soxna si nag Adja boo xam ne da ñëwee sur la défense. billaay billaay billaay défense. non da ñëw attaqué ci mu dugg ci màkk gi. ko. non man damaa waxee rek dama ah, parce que loolu moom pour mu leer. ci sama kilifa la nag yéen waaw waaw donc foofu ah, laa bëggoon wax mu leer. Ah, pour ñu mën a mukk mukk duma ko wax de ah mukk parce que foofu moom soxlawul sax yow nga wax waaye man mi présent émission bi ah, am naa war ma bu toll ni du invité nit wax dëgg yàlla ngay amee lu la naqari ci émission bi loolu moom na taafe surtout pas ay euh, euh, euh, tey mu leeral ci ci loolu que loolu bokk na bi mm. ma ñëw ci man doon ma waxaat ci bi ba mu jeex lu tax waaw ah boo waxaatul ban saa saa. Mm. non dama doon bu ñu la joxoon billet Makka benn affaire moo am. waaw dañu ko ne waxtaan benn affaire musicien bu yëkkati woon billet Makka am benn affaire laay wax mooy. vidéo coupe d'Afrique bi. Mhm. képp ku ne 2002 la. Mhm. képp ku ne 2022 bi la. non loolu na loolu yàgg na. waaw loolu mën naa ko nga dëkk Maris. dëgg la 2000 coupe du mhm. mu leer leeral na ci. xam nga boo leerul loolu a def avant coupe d'Afrique bi ñëw. mais leer la nit ñi di wax sama projet ci coupe d'Afrique bi. bu toogee fi di ko wax. li ma dégg may wax ci musique ak monsieur Bougy bu Makka. ah da nga laal moo tax mu ñëw pour pro. waaye moom moom sëñ bi nag da ngay laal. defan peut-être nag fi nga laal moo xaw a. parce que xam nga Moustapha mhm. ma. Mhm. Euh, mhm. bi ñaar dafa naqari. ñaari mbir la xaar ba balaa balaa yow da nga ne man kenn nga dalal émission boobu nee nga émission bi nga dalal kii pour mu ñëw waaw léegi sa jigéen laa nag dama lay jox si ñaan nag nañ waxtaan rek nag man dundu ma nag man dundu ma wax léegi waaw léegi moom toog di ko raay kon waxtaan la waaw léegi waxtaan la léegi waxtaan la parce que Moustapha man maa ngi lay expliquer loo xamante ne boo ma dégloo rek yow fii nga toog nii doo ci am lu la naqari bàyyi ma wax du dëgg euh, euh, euh, tey dégg nga déglu nga axe bi nga xamante ne moom la waxee moom waxul yow même chose moom moom nga wax moom waxul pour waxee foo xamante ne nee na ki nga xamante mu ngi def lu araam te yàlla na lii dafa araam nit ki waru cee dugg ba di ci am alal ba di ci siif at loolu euh, wax dëgg yàlla sa doom defal la lu la ñëpp ñaan la ak lu la ñëpp la mm-hmm. wax dëgg yàlla waa sëñ bi xanaa loolu yéen nga ko tey ku la joxoon billet Makka yow doo dem sama yoon ci moom tey Wally Seck bu xëyoon ñëw di la jox billet Makka yow nekku ci loolu fi mu toll nii lu tax ci loolu yëpp man de maa ah. ngi ñaan ci darajay rasulullah ci barkeb sëriñ Salim. Ah. bu déwénee yàlla na xéwalam yokk ba mu boole ma ci beneen billet ma yóbbaale fukki nit wala juróom loolu laay ñaanal sama doom ji. moom mi ko ci yóbbaale kan. non non waxuma doom laa wax Waly Seck lu ma jox bu dee xaru tabaski la dama koy rey bu déwénee ma yokk te su ma ko lekkee su fekkoon ci man da koy saafara. Hmm. xam nga xol mooy jëf. ba pare bisu ma bëggoon rek tuuti. Hmm. parce que nag. Euh, dañu ñu àdduna di seetaan. Hmm. àdduna bi yëpp ngi taal seen i télévision Sénégal gépp duñu seetaan parce que man surprise laa ñëwee dama ñëwoon pour ñaanal sénégalais yi xam ne damaa jóge mbég am na ñu ñëw keroog fanaan du gisuñu ma kon il faut que ma profité ñëw remercier ñi nga xam ne dañ cee jàpp ñëpp ndax affaire bi dafa bari woon ay sponsor ndax soxna Aïda dem na màkk rek Sénégal apprécié bi ñu apprécié euh, dafa doon mbégte te ma liggéey ci Sénégal nag benn liggéey boo xamante ne ne tey bisu ba ma bala ma doon kontaan dëgg dama la doon jéggalu rek ndax sa émission bi dafa am ubbi ligne wala déet ndax man émission bala ma ciy nekk à dañuy ubbi ligne bi sénégalais yëpp dugg ñu àtte affaire yi mu mu gën a mën a neex parce que man dama bëgg suñ may invité ma xool askan wi nga xam ne damaa jëflante ak ñoom ñoom lan la ñuy dund ci sama invitation ci télé parce que nit ki mënul wax boppam te saabu du fóot boppam te war na ñoo am yenn ñun suñu façon bi dafa simple liggéey bi mettiwul te Moustapha sama càmmiñ li ma di ko ziyaaraat bu baax. ah da nga ko yàlla da nga ko tooñ da wax ko parce que dafa am rek. da wax loo xam ne nee na nga waxee loo xamante ne moom dafa wax. mais li mu wax dina metti nag neexul sa doom yóbbu la màkk mu def say farata. te màkk yombut a def. da nga ko tooñ moom ngay baalu nag. tey yoo nag bu dee da ko faral waroo mën a éviter na da nga ko faral. Ah, man yàlla dimbale ma def ñett. far waaw man tey ah, la ma ban problème ma fa am ange soldat laa. Mhm. ndeysaan sama papa la woo la man nit mënul ma dox sama sim science. Mhm. maanaam li nga di lu ma la xam nga man man nit mënul dox sama sim science. Mhm. loolu ni mënu ko. parce que loolu yàlla dimbali na ma. ba ñi ma formé yeenañ ko ci man. nit mënul teg lu ma mënul xam lu ma mënul lire. du dëgg. dama am ngant nag ci émission bi. vraiment mosuma dagg émission ñi bi mais yaa naa bii dinaa ko def. da may jéggal. parce que nit su lu waxu dëgg amutoo looy wax ak moom parce que danga nga da nga wane na ma man kenn ngeen ma ñëw toog ñëw naa kii ñëw toog kon nag bàyyi ma la nga émission man ma ñibbi déedéet déedéet déedéet bàyyi rek ma dem bàyyi ma dem nga eggali bàyyi ma dem nga àggali léegi la taxul dem lii sénégalais dañ koy jàppee daw te bëgguma mu demee nii taxul ma wax la waa léegi dañ koy jàppee daw mu demee nii mu oh, oh. tax kuy dëggay bokk ak man émission yi boo koy def da koy préparé toogal ni soxna si nañu eggale émission bi ba nga jóg yow boo jógee moom da ngay jógaale ba benn yoon eh, eh, eh, soxna Aida kaay toogee ni ñu bi tàmbali na léegi soxna si nag fi ne nii nag sa émission bi fexe nga ba dàq sa beneen invité bi loolu dara du ñëpp a ma ñeme nag parcours bi la sëriñ saa yàlla wax xorom sama vie nii la mën a demee dama travailler nag parce que bisu boo xoolee soxna ay Aïda Saliou du soxna Aïda vaillante seul dama am bappat ci social mhm. liggéey sama réew li war président war état war ñëpp dama cee taxaw réew mi lu tax lu tax lu tax sa ndaw dawle yi bëgguñu toog ak yow émission waa moom la ma tax mu daw ni mu daw dem liggéey bi dafa sensible boo waroon fukk boo leen ne soxnaay da la bëgg a jootal émission il faut ñu répéter. xam naa dawut sax nag xam naa dafa am rek lu muy lijjanti ji. non dafa daw non non xam naa dawut dafay dafay ñëw dina ñëwaat. dina ñëwaat ndax sénégalais dañ koo bëgg dina ñëwaat. man gan laa ci réew mi moo tax fi mu ne bi ma ñëwee yàggut. ñu waxtaan bi tam ñëwaat ci euh, man yow eh, kii bëgg naa ko de nekkite. dañuy gis ci say euh, ci say eh, sorties yu bëree bëri ñëw bëgg naa ko de. Euh, euh, ngay wax ak yàqin que gars yi dañu mel ni que parfois dañuy wax ne soxna Aida day day wax ak doole. sama xarit bi Moustapha war a woon dem nag de day wax ak doole day wax ak day wax ak yàqin. ci faama àddina yàggul yi ngay wax ak pourquoi mu wax ñëpp jàpp ni ki li mu wax dafa mel ni fu am fu mu ko teg fu wóor a wóor a wóor. waaw parce que bi taf man sama yaay dafa yoroon ay ndëpp man ci ci tuur ci péncum tuur lañ ma naan takk. bi ma juddoo ñëw fekk sama waajur wu jigéen man fii laa dëkk Sénégal Pikine laa juddoo tali bu mag tableau gazelle. may sama caatu yaay. mais bi ma juddoo rek man jour bi avion bi di daanu Pikine quatre-vingt. jour boobu lañ ma doon tudd imam bi daf ma teg daw <laughs> parce dama judduwaale bruit. big taf nuyul waa YouTube. balaa ngay gëj <laughs> nuyul waa YouTube ak waa Facebook. d'accord gisuma leen tey nuyul waa YouTube nuyu waa YouTube ak waa Facebook ñoom Bamba Sakkoor ak ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax gaa yi nekk ci <laughs> ba tey ma dara big taf la big taf mi ngi ci samay tànk. ya ya ya ya. <laughs> Mouhamadou Moustapha la defuma dara mi ngi ci samay tànk dama bëgg muy leer léegi maa ngi woon ca ngénte place du souvenir ba Mariama Mané ba yëguma lu géej gi <laughs> big taf yónnee na ma affiche dugal naa te gëwuma ko woon. ayte moom man maa ngi war YouTube ba euh, moom laay xool la konnel après le temps waaw konnel konnel le temps que ma ñu ci suuf rek waaw bon ayca waaw bis bi may juddu hmm. bis bi may ngéntal avion ba daanu quatre-vingt ma hmm. aviteeru yi ca Pikine tali bu mag ridis hmm. bis boobu lañ ma doon tudd imam bi daf maa teg daw sama baay bi ma fore photo sëñ Sall bi daa tafu ci sama noppum nijoor mu ne tur kon mat na ma juddoo ni ma juddoo tey bi ma juddoog léegi am na mag ñoo xam ne fekke na mu sama ndaw waaye may ndaw goo xam ne euh, yàlla dafa ma def nag teg ma natt boo xam ne euh, lu sénégalais di dund wala lu doomu aadama di dund rek dund naa ko ci bu neex bi ci bu metti bi ma juddoo yàggul parce que dama juddu rek sama yaay ñu daan ñaari kuy duñu bokk mbalka yëf yi ay tàngam téye ay loxoom téye léppam téye woon ma sax dafa jafe moom mënuma woon téye mais yàlla dimbali na ko mu kër kër kërteeg man ak samay mag sama mag ji nga xam ne tey mooy sama yaay bi ma aji jee moo nekkoon sama kër man kooku mooy sama yaay parce que taaw bu jigéen mooy yaay mais yàlla dimbali ma damaa damaa limmax ci ku rek ut samay xeltu gerte man grand place bu ma mës a toog de grand place boobu tas na ndax dinaa fa wax loo xam ne dinañ ma fob yóbbu ma sunu kër wala jàpp ma ci loxo yóbbu ma sunu kër te bu ñu xëyee Sénégal gépp dinañu xam ne li ma wax tey ci koñ bi wala ci kër gi mm-hmm. bu xëyee date beeg heure bi la ñuy xaar waaye xam nañ ne incha allah ah, mooy ci sa wàllu set waaw mooy xoltu gerte tey laa tàmbalee mm-hmm. équipe équipe yu bëri comme ay nawetaan ay ay ànd juboo mm-hmm. ay benn baraak ay sancaan ñooñu équipe yooyu maa leen lakkaloon ndax samay xoltu gerte laa daan yor rek taxaw ci équipe bu war a def regroupement rek su ma tasaaree affaire yi wax ne équipe bi mooy jël lii équipe bi mooy jël lii mais tey tey ak loolu mooy soxna Ayda aal boobu nag ak ji nga xam ne ci laa juddu muy deretu tuur dereti xàmb ak ndimbalu yàlla suñu borom man dama juddu rek suñu borom indi ma ni mu ma indee def ma ni ma ni ma def man sax damay toog ba si yàgg bu sama bopp yéem ma mm-hmm. parce que yenn saa yi ma taxaw war a doon soxna Ayda mais dootuma xam man kan laa. Mhm. après laay xool moo tax sama vidéo bu passé man mënu ma jàkkaarloo waat ak vidéo boobu di ko xool. Mhm. moo tax nag événement ba événement laay génn. te mhm. su ma génnee ñëpp xam ne Soxna de def na sorti mais Soxna Aida euh, yow euh, li nga xamante ne moom mooy wàllum seet gi nga xam bi ngay wax nii. ak coow lu bari li ci am. la moo tax nga préféré rek percer mooy seetkat xam nga tey jii. Euh, euh, Sénégal moom kenn gëmatul benn seetkat gëmatuñ kenn. Hmm, man de ndax gis na waaw waaw waaw xam nga <laughs> li tax gëmatuñu seetkat yi mooy ñi fi jot a jaar. parce que tey bu ñu naan seetkat da nga doon dégg ñu naan diw. Hmm. naan diw naan diw naan diw tey émission bi toll na foo xamante ne koo ci tudd rek yaa ngi tooñ keneen ak keneen bari na. ñu ci bare bari bari bari ñu ciy dund lu metti tey jii suñu yaay salbe dund na ci lu metti lu ne. Hmm. ci wàllum seet léegi pourquoi. nga préféré toppaat ci tracé boobu noonu seetkat bu siiw voyante bu siiw voyante bu siiw te li ngay doon def yow yàllaa ngi la doon dimbali te siiwoo woon la moo tax nga préféré loolu. waa xam nga dafa am ku dem ne wane leen ma. Mm. am ku wane ñëw ba ci moom wane ko man dañ maa wane wanewu ma sama bopp. kan moo la wane. Mm. élection présidentielle yi. Mm. deuxième tour. Euh, élection yi passé. Mm-hmm. presque man bi ma génnee internet boo xoolee samay vidéo 2019 la 2018 man bi ma génnee yàggul Amadou Ba euh, boobu dañ doon wax ne président Macky Sall du dem du dem du dem du dem du génn premier tour ma ne leen d'office lay gañe réew mi d'office la koy gañe du am sax deuxième tour ñu ne ma nax li nga wax sañ nga koo wax publiquement sénégale yi di ko dégg ma ne ko boolee ma waxee indi fekk vidéo lañ ma def nii Euh, Sénégal 4 TV. maa ngi leen di nuyu ñu daal di ànd ak benn man sax xaw ma woon ne boobu téléphone dina wane nit euh, filmer mhm. njëkkate boobu ñu ngi may vidéo naan ma waxal bu ñu demee dañ koy wan kilifa gi. ñaari leader yoo xam ne euh, temps bu ñoom ñu ngi bokk ci Amadou Ba mais du ma wax seen tur may leen réew mi. Amadou Ba dina nekk cinquième président du Sénégal. mi ngi ci yoon wu doy waar yoon woo xam ne bu nu xefee xep xep bi mhm. dina bett sénégalais ak mbégte mu doy waar. yoon wi mu jël baax na. am nga yaqin bi daal yoon wi mu jël dafa baax ñu eggali. Hmm. bi ñu ñëwee filme ma dama jékki-jékki rek sama doom ni ma yaa gis naa la ci tele ma ne ko télé. Hmm. léegi nag xam nga Sénégal bu ñu nammee li fi xewoon dafa xewi. Hmm. parce que boo xoolee internet bi am na ñu ñu yóbbu vaar. waaye soxna ay da internet. boo ko doon vérifier waaram du am. Mm. jamais de la vie. Mm. parce que bu dul dara. man taalibe Serigne Saliou laa li njëkk ci man te bu ma génnaatoon àdduna dellu si waat àdduna taalibe Serigne Saliou laay doon. Mm. te sénégalais yi du ma wax lu ma gëmut. parce que man soxna Aida bi ma juddoo màgg rek dix-huit ans laa dugg ci sëy sama taaw deux mille la juddu boo ko génnee ci quatre-vingt du dara. kon dara xam naa daal lu carax mais kilifa la bis. ajaratu soxna Ayda nekkatul ndaw ak li ma def ci réew ma dama marqué sama empreinte effectivement man seet mënu ma def effet ñi muy tiital ak ñi muy yóbbu seen fit ak ñiy wax di tiit non man du ma wax di tiit mhm. parce que bu ma waree wax laay wax bu ma waree noppi noppi parce que mhm. dama am yeneen objet yu ma nekk mhm. parce ndaw ñi nekk sama ginnaaw dafa bari dama war a liggéeyal sëñ Touba te dama nekk ci yoon woo xam ne nekkuma ak fo moo tax awma xarit ci lii may liggéey nii non awma ci xarit waaw mais ndax ni mu séance yi ndax ndax ni mu demee nii euh, su yàggee di nga ci am xarit. parce que ni di nga dikkee tey quoi. non parce que li fi nekk la ñuy waxtaanee. Mm-hmm. parce que dama yaakaar ne ki ñu teg ci taabal ji. Mm-hmm. depuis loor ñu ciy wax. Mm-hmm. te waxuma ci bu dul woon fii duma ci wax. parce que sama dem màkka la man lañ yóbbu màkka. man maa ziyaara ji woon bayti laay. man su may dem xam naa fi may dem. du ma étranger fii ci réew mi. man man nekkuma comme koo xam ne tey da ngay def sa benn appartement rek fu la neex nga toxu bu la neexee tey nga am juróom-ñaari appartement boo xam fi ngay fanaan ak fi ngay nekk bokkul non hmm. man damaa galéré néegu quinze mille laa njëkke hmm. ak sama borom kër dëkk ci taw bi xuus doon gone gi laa juddoo yëmbal laa màggee hmm. bi laa dugg xam nga ne fii laa dëkk ci bi laa dëkk te fii Sénégal la de sénégalais yi kenn moomu leen man aw ma souci ci seet aw ma ci tiitaange xel mu dal laa ci am heure bu ma neex laay toog heure bu ma neex laay dem tuur heure bu ma neex laay dem ngénte fu ma neex laay tax waxte damaa yor njaboot kon liggéey bi mën naa rafet te boo ci rafetee dangay ngay simple te seet xewiwul de seet tey la gën a dox d'accord xam nga loolu lu tax du xewi parce que nit ñi dañoo jaaxle te ba tey ñi ngi seet li ñu réer le waaye euh, dañ leen du wax li ñu gis tey waxuma sax loolu noonu côté boobu mais soxna en personne. waaw naqar bu bi moo ko yàq fit ak wax ji. naqar bu dëddu ak xel ñaar bi moo yàq réew mi. da nga jàpp ne loolu la ñuy gëm xam nga ne seetkat yëpp naqar bu dëddu la ak xel ñaar seet bu demee ba yow nga am jaaxle ñëw man mm-hmm. contre ma ñii seet xam nga ñan laa contre. Mm-hmm. ñi war a seetlu ñi am seeni soxla di ko seetlu. Mm-hmm. parce que man mënuma gëm nga war a seetloo nit mu laaj la say soxla nga répété ko say soxla yëpp ba mu jeex tàkk mu bind ko ci kayit bind sa tur bind sa turu jëkkër bind sa turu ak bu dee yow ku am jëkkër nga mhm. ñu ne la suba ci 10 heures nag ma woo mhm. te yow répété nga sa situation ba mu jeex taak mhm. pour man booy seetlu war ngaa mën a joxe sa tur ak sa sant nga déglu ki lay seetal bu la waxee lu la arrangé di ko xam te koo saraxeel benn sarax boo ko filmé lee téeméeri nit wan leen ko ñëpp moom sarax bi nag amul tur sarax boobu ku ne mën na koo moom d'accord mooy sal à l'unanimité bi quoi wane ko nii rek. ne sax maa ngi rey nag wala maa ngi rey seetkat boo xam saa yoo dem réeree mis wala ginaar du lekk laax mukk wala sóom mhm. te yow mi joxe xaalis bi sóom bi ngay réeree wala mu xam sax mhm. mbaa may ga mhm. buñ ko gëstoo rek xam fi mu nekk de. Ah, dafa réer. dama ne. seet gi moo réer te ñu war a seet réer gi fan la nekk xooluñu ko. amuñu droit wax ci élection législative yi mais stressé na trop. aal bi nag ci soxna Aida du wax lu mu gëmul ndax man doon soxna Aida Saliou rek doy na reg ba faaw ndax nekkuma xaar ba doon seetkat tudd soxna Aida Saliou damaa seet te li ma seet ak li ma yàlla di wër sërëgale muy sama yëfi bopp fi ma ko war a dugal laay dugal xam nga kàrce bi nga dëkk bi ci njëkk mooy waruñoo jëppante waroo lakkal waa karte bi tiital leen xuuxal leen ba waa quartier bi war laa mën a tiit tiit goo xam ne ndox bu génnoon sa kër koo ko jox ci koñ bi bu ne la merci. ak ah, keroog ba ngay jógee màkk xale dañ la topp ndiiraan. man ba may jógee màkk dama jooy màkk jooyu ma màkk de. Mhm. jooyu ma bi may demee bi may dem ak bi may ñëw moo ma jooyloo ngan gi tamit jooyu ma ko. Mhm. mais xale yi wéetoon ci man gise bi ak kontaante bi ak mbégte mi. fekkee naa ko parce que ñëw naa ziar si la wax dëgg yàlla. nit ku nekk war ngaa jooy loolu moom du ma ci débat. Mhm. Sénégal dinañ ci debaa wala ñu ubbi ligne bi. incha ba non moom est-ce que du doo ko jox juróom nag. non dañu parce que parce moom li ñu moom bari na quoi parce que tey comme émission Moustapha Dramé la woon. Oh. nag explication mu nag mooy dama yaakaar bu ñëwuloon ñu indi ko te waxoon nañ ko mu xaar mais dama jàpp ne kilifa boo ne ko dina ñëw parce man jàpp na ne Moustapha Dramé dina ñëw biñ ne ko dina ñëw nag mu dem gëmul dañu ko def ñaari yoon léegi nag bi ñu waxee kii de toute façon yow xaa yow ñëwal rek parce que bu ñëwul ñu ñëw ñu démarré mais mënul ñëw ba fii te duñ ko dugal ci plateau bi noonu la demee man dama xaw a gêné wu parce ñoom ñaar ñëpp samay kilifa lañ te mosuñu ma dégg ci lu mel nii moo tax mu xaw a jaax mais plan B la woon rek bu teew te mënuñu woon ñàkk tamit moom ñun kilifa gu toog ñu ko te doo ko. doo ko déplacé deuxième fois sama maquillage sama maquillage. voilà donc bi bu yàqu woon. nii tam dootuma ñëw jéggalu waat bu a ñëw. waaw waaw sama la koy jox. vraiment damay jéggalu waat bu baax a baax a baax mais ba tey confrontation moo demee nii chaque fois surprise day am te lii surprise la yaakaaru moo ni dina dem. surprise bu am maanaa nag kii yaakaaru moo ni day dem. man sax duñu ay noonu parce man ak lu mu mënti demee damaa bàyyi sama borom kër ci biir kër ga. Mhm. te bi may ñëw ci ndigal laa ñëwee. Mhm. te dama namoon sénégalais yi. Mhm. pour massawu leen pour ñaanal leen. Mhm. mais pour ñëw ak moom sax euh, juste que li mu tudd ci màkka gi. Mhm. ak kilo la yóbbu xam nga safara xam nga ñun mën nañu waxtaan. mën mhm. nañu waxtaan ba pare. te du ñu dugg ci benn boo xam ne émission bi pour man fët bi du yow du moom. parce que man dama ñëwoon pour saafonte ak sénégalais yi. ak mbégte mi ak ñaanal ñëpp waxtaan sax parce que tamit da nga am ak profito ci plateau bi. ak profito ñeent fukki guddi ñu ne ku ma ñaanal mu nangu bëgg koo tasaare sénégalais yi. ak suba élection yi mais man kenn ku ne xam na ne bougé gu ma demaguma fenn. sama buntu kër sax demaguma fa xew demaguma fa fenn parce que mais lii profitoo la woon pour ñaanal sénégalais yi parce que boo xoolee ci internet bi fépp nit ñaa ngi may ñaanal mais mais woon lii quoi tamit mënoon nañ waxtaan ba si kanam parce que ci liggéey bi la tamit sénégalais yi <laughs> daanaka xoj nañu cinq minutes moo ñu dese parce que bi ñu commencé ak léegi dafa yàgg mais euh, fit gi tey fit gi fit gi moom faaw ñu waxtaan ci ak yeneen demee mais la moo tax soxna si yow da nga pànk yow la moo tax nga pànk xanaa jóge nga màkk rek léegi pànk gi war na dañ. non man pànkuma sama deret dafa am lu muy bañ bëgguma ko yàqu gor bëgguma ko tilimal gor bëgguma ko kilimal koo xam ne li nga bàyyi sa kër euh, tey am nga lu ni lu gën a tilim nga bëgg a jël benn doomu jàmbur bëgg ne lu mu def boot na lu mu def loolu baaxul te yow li ngay def yaa ngi koy baaxal mhm. pour man war nañu passé boobu Sénégal mhm. te tamit euh, li may liggéey dama ko maîtriser ba ni ma toll rek laay laay jëfee ak ni ma toll rek laay waxee. Mm-hmm. mais bisu yaa ngi wax ak ku bëri yërmande benn taalibe Sëñ Saaliw boo xam ne. Mm-hmm. man yërmande kese la dañuy gis ni da ngay dal rek. waaw parce que parce que xam nga nit ñi bu ñu la dee xaar. Mm-hmm. ci la. di jënd connexion di la seetaan. war nga leen a wan a wan loo xam ne. ay réalité la. du nekk ay fo quoi parce que kilifa yi dañuy seetaan. Mm-hmm. ay responsable di ñu seetaan. Mm-hmm. ay nit ñu jàq ñu tiit di ñu seetaan. Mm-hmm. kon waruñu leen a mën a wan ay comédie chaque jour ñu bëgg indi benn affaire boo xam ne pour ut buzz la wala affaire yooyu. parce que mën na ñàkk. Ah. man man man damay ñëw def fulla mi am na léegi li ngay gis yëpp. pour pour comédie la. yaa ngi comédie man nga dugg ci benn gaal boo xam ne danga nga yox benn extra boo xam bu ñu ko daggee dina doon lu lay travail ak bës man noonu man doxewu ma noonu mm. man li may doxew li ma sénégalais yi di xaar li ma sénégalais yi di xaar ma def ci fulla ak fayda mm. ba su génnee bu nu ko tegee mm. ku ko seetaan xam ne lii am na lum lay jariñ wala ma wax sénégalais yi sarax bu leen di jariñ man ci loolu laa nekk ak côté sarax du ma côté sarax parce que urgent boo koy wax da nga war a wax lu urgent loo xam Sénégal bu ñu ko seetaane mën ko defe ji urgent mais di def loo xam ne yow ay après ay réy bala nga koy def da ngay réy ba fàtte ne yow li ci am ful la man doxewu ma noonu mhm. parce que tamit dafa am ñu ma bàyyi ginnaaw te a leen yow pétaaw ngay seetee man damay seetee ndox damay seetee suuf dama lay xool sax tàllal sa lox wax la wala ma géntal la xëy gént Sénégal ne lii mi ngi ci Sénégal te mun nañoo lor wala mun na lor suñuy doom ma jaarale ko ci internet bi yow doo génne sarax damay seete péta waaye bàyyi naa ko fi mu ne ci yonent bi laa jóge ah. changé ci yonent bi kon dootoo seetati non damay seetde ci ci lay reer ci laay ndékki ci laay añ ci laay ndékki ci laay social ci la ma ñëpp di xaar hmm. mais pétaaw bi nga bàyyi daal pétaaw laa bàyyi ndax ne nañ pétaaw dafa xaraam hmm. te lu ñu xas a tilimal wala ñu gàllankoor ko du ma ci def. kon léegi yow ngay wax ci Moustapha Dramé li mu expliqué léegi nii. lu mu expliqué ci loo xamante ne euh, euh, euh, musique dafa xaraam. non moom moom musique yàgg gis naa yàgg naa gis muy taral musique se bëgg musique way ko xam nga nañuy seetaat kàddu yi ngir ëllëg bu nu koy waxaat. dafa yoo xam ne ah, neexul dafa non defal ndànk bisu kenn ku ne xam na ne da gis dafa bëri polémique polémique boobu. pour nga dem màkk xamoo ne dafa xaraam wala. avant nga dem Màkka xamoo ni pétaw dafa xaram. man hmm. dinaa koy dégg. mais man maa bëgg am pers man maa am personnalité boo xam ne man dama bëgg a teg pétaw ndax ñëpp ci pétaw lañ ne. te man samay pétaw dama ko tegoon pour meuble mais lii gis si man la ne soxnaay da liy gis. ci deretam ah, la ne parce que sénégalais yi pétaw la ñuy gën a wóolu sax. non wax la leen da lay wax lu ñëw wax la lu ñëwagul. ok pétaw mun na la wax léegi luy ñëw wax la léegi lu ñëwagul. ak lu passé. soxnaay da mën naa tëdd ba guddi. Mhm. deux mille vingt bi ma naan leen li xeeñ mille vingt deux mille deux mille vingt et un lay xasaw xunn ci réew mi waaw bi ma koy wax deux booba xaajuñu pour xam booba seetewu ma ko pettaaw réew mi li fi nekk ci gaal yi ak li fi nekk ci tolof tolof mas ci Sénégal bi may wax ne nañ leen naan soow moo ñu yóbbu ba coupe du monde di wax bii ñaata bii lay amee di ko wax ci TikTok bi xale yi di ko seetaan Sénégal gépp àdduna wërngal di ko seetaan muy amee noonu booba xooluma ko ci pettaaw nee naa la soxna Ayda bokkul sa tur mu xoolal la nii ma toogee yéen kenn ku ne mën naa laa wax ci yow lu bari. mais damaa tàmbalee gut bu leen neexee yit ma wax leen. Ah, ndax fi mu ne nii seen lépp ngi ci sama loxo seet naa ko ba pare. moom mi toogoon fii li ma gis bu ñu toogaatoon tuuti mën naa koo wax wax ko lu bari ci jëmm lan la mais nekkatu fi ko du ma ko wax ci ginnaawam bu toogoon ma seetal ko wax ko kaamil ci yaramam ndax mi ngee wéré di goo xam ne mi ngi koy sonal te dinaa ko ko wax nag dinaa ko jël ci suuf na bëgguma gaañ kenn am na solo. Big Taf loo gis. non man kay. non da ngay seet par <laughs> loolu su ma si internet jox nga leen li ñu ah? liggéey. acca laajaat ma leneen. fi mu ne faaw gars yi dem seeti Moustapha Dramé pare seeti waat soxna parce que semaine bi yëpp dañ seeti laaj leen jug bi fii ak affaire yi demee mais li Big Taf wax noonu la demee dañoo amoon plan A plan A dafa ñu pont ñaari yoon Big Taf kale plan B ngir yàlla defee leen ko noonu noonu la demee jàll jëlee leen. <laughs> Sénégalais amuñu leen luñ ci wax. parce que ni affaire bi dale ñaari kuy du ñu bokk mbalka lool la parce que jigéen am na fu muy toll ci réew ak njàmbaarteem ak jomam ak fullaam da koy yóbbu foo xam ne góor gu xaw a bàyyeeku ma la fa fekkee dama lay duble doo xajoog man ci benn géew noonu la affaire bi toll bu ñu doon waxaale xar tey ma jënd laadu. émission bi jeex na émission bi jeex na bi jeex na. <laughs> seetal Moustapha kon tey du pour seet. waaw man <laughs> loo gis ci moom sama bi ci ginnaaw. non tey ñëwuñu pour seet dañu ñëw pour ñaanal sénégalais yi rek ñu tey. kon nag dama lay bàyyi nga nga ñaanal sénégalais ñaanal sa doom ji nga xam ne it moo la yóbbu mag. waaw ñaanal sama doom Wally Seck sama xarit bi. yóbbu gi ma yóbbu yàlla bu mu waaye pour man Wally yóbbu na ma waaye yaayam yóbbu na ma waali yóbbu na ma waaye yaayam yóbbu na ma maa ngi sant yaayam bu baax a baax waaye di sant soxnaam su baax si ndax jëkkër ak jabar danoo jegantoo bu bëggoon jabaram ni déet du am bu bëggoon yaayam ni déet du am ay raqam képp koo xam ne bokk nga ci sekk faramaare ni bokk ak papa bokk ak yaayu waali bokk ak waali bokk ak soxna ay dara maa ngi sant ñëpp waaye di sant faramaare ni ñëpp laa ñëpp laa ñaanal yàlla yàlla yàlla yokk waali sama doom Ah, lépp lu mu yuutu yàlla na ci jot yàlla na am dégg si door ci darajay rasulullahi mm. yàlla nay dégg wiw rek waaye bu mu dégg noo mukk maa ngi ñaanal sénégalais yëpp ndax ñëpp ànd nañ kook man sonn nañu ak samay dëkkandoo sama borom kër gu baax gi nga xam ne bu ma ne woon déetit ma toog mm-hmm. di ñaanal murit tarxiya murit yëpp ma kenn ndax ñëpp jàpp nañ ci ndax waali yóbbu na murit yóbbu na tiijaan yóbbu na xaadar yóbbu na laayan parce que yóbbu nga soxna Aida rek mu yóbbu nga askanu Sénégal gépp ndax ku ne am nga yéene yóbbu ma màkk man ah, man loolu bér na ma man ndax ku ne am nga yéene yóbbu ma màkk am nga mbégte ci sama dem kon maa ngi ñaanal sénégalais yëpp kenn ku am yéene ci man yàlla nga ko mottali ci daraja yaa rasulullah te lim mën ren yàlla na mën déwén lu ko raw waaye nag di ñaanal fekk <laughs> Moustapha Dramé sama càmmiñ sama xarit mhm. parce que man ñoom ñooy góor ñi maay jigéen ñi mhm. ndax bu may tudd dama leen di soxla mhm. bu may mayee sama doom dama leen di soxla mais garaawul daal liggéey bi demee nii euh, yàlla mooy nattu ay nattoom nii la nattu bi demee waaye sant nañ ci yàlla euh, internautes yi bàyyiwuma kenn journaliste yi képp ku yor micro sant naa ñëpp daal waaw di sant sama doom yi sama xarit yi groupe keppaaru soxna Aïda Saliou waa Masalikul Jinaan moom damay jël nuyoo bi rek te ko ci sama yaa gàmmu teg ko ci sama baay mbàkk yu teg ko ci sama baay bopp bi nga xam ne spécial la waneeguma ko dama koy nëbbu ba ci kanam bala ñu koy xëccoog man moom xam na yàggaam mu xam na waaye di ñaanal sama rakk yi nga xam ne sama ngan gi sonn nañ ci ak sama yaayu bopp taal su ma waxee taal ne saw rek yéen xam ngeen ziar naa ñëpp ñaanal ñëpp yeneen ñi ñaan yàlla dajalewaat ñu ak caméra ah, waaw moom danañu moom parce que euh, sama genre nga xam ne comme ça xam ne dama koy gën a préparé ah ñu daal di ñu daal ñu daal di toog jàkkaarloo rek def confrontation. incha allah parce que tey fi nga génn nii gis naa soxna si yow beneen facette. beneen visage boo xam ne daal yow <laughs> war naa mën a toog confrontation fi mu nag soxna si nag. mën a toog nag. macha allah ah noonu war nga cee war a mën a toog nag soxna si nag. ñëw nag. ah baax na <laughs> confrontation da jar confrontation soxna si jàppal beneen jour waaye. jàppal beneen jour loolu tax tey il faut nga jàpp jour boo xamante ne dina gudd. dinañ toog waxtaan du dëgg. ah émission bi yaakaar parce que tey émission bi Moussa Dramé la woon dëggantaan ko disponible naa. incha allah incha allah rabbi. ah kon baax na yow de doo ñu pont moom. ah Moussa li mu ma tegoon bay pass sama maquillage la xam nga daal man daal li ma am lu may wax mooy damay jégalu téléspectateurs yi. di jégalu Moustapha Dramé itam. lépp yow la de toute sa famille. di jégaluwaat bu baax a baax a baax a baax parce que itam. dëgg la noo baal na la nit ku baax la li ma doon xalaat mu a ñëw moo tax lii am maa ngi dinaa woo maag moom suñu xarit ko moom ba pare baalu parce que itam c'est la que c'est les risques du métier amul baax a baax Serigne Ndiaga Kanté moom itam Serigne Cheikh Tidiane Niass moom dafay woote conférence euh, fële ci ci ci géejawaay la ah, koy defee waaw conférence géejawaay tàkku saanu maam Khalifa Niass waaw mooy damay kii la damay jàll rek muy eh. nekk le le 14 août merci beaucoup Serigne moom itam a ma ñi ma ñi seetaan ñëpp ku ci mel ni yang taaf Khalifa ah, ah, moom itam studio ñu ngi koy voilà di idaali idaali ma sama yaay invité tey moom tout le temps dama ko gis ak soxna i daal merci beaucoup sama wéttal la booy jinne ah moom la tuddee boppam merci encore donc fa laa yem euh, Ndéla Ndiaye depuis Guédiawaye moom itam jërëjëf jërëjëf et puis je m'excuse euh, Papi du fond du cœur maa ngi jégalu Papi kaay laal ma waay détail ngi maa ngi jégaluwaat ñëpp di jégalu euh, soxna Aïda jégalu sëñ Moustapha Dramé di jégalu fi jot am man maa jël responsabilité bi et c'est les aléas du direct je m'excuse vraiment yaa boo ko jëlul ku koy jël dañ koy partagé. <laughs> man partagé mu dara man xam nga émission bi gan laaj <laughs> gan laaj léegi de. ay ci papi sama benn xarit sama meilleur ami la. muy docteur Thiam Abbas. docteur la mais sama xarit ñu boobu fanaanoo benn lal. docteur la docteur la takk jabar tax mu yow la dem ah moom man animateur. souvent <laughs> mais man j'ai une licence en marketing communication. marketing communication animateur bu am classe. animateur bu am maanaam bu xew. mais tey def naa lu ma neex tey def naa lu ma neex tey. animateur bu am oral. <laughs> merci beaucoup da ci oral nga nekk. Euh, madame madame Thiam tamit Zeyna merci beaucoup su ma remercié Abbas rek bu ma ko fàtte day mer donc jaa ngeen jëf merci beaucoup encore. ayca euh, man nag damay jaajëfal sa sama njaboot gi. comme yow maa ngi ñëw dañoo bokk njaboot rawatina sama doomu bopp Fama. <laughs> ah euh, mbër maa ngi lay jaajëfal mais yow xam nga doo sama gars yi Moussa mooy sama xarit sa frère. du dëgg ah, ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax a baax. Euh, di jaajëfal équipe technique bi nga xamante ne àndoon nañ ak ñoom ci émission bi à chaque fois du ñu tay ñoom suba instant yi war nañoo xëyaat fajar teel daal di jublu ci li nga xamante ne moom mooy élection yi gars yi dañ leen di ñaax rek euh, euh, di leen bàyyi benn message bu bu am solo boo xamante ne jug leen ci jàmm dem voté ci jàmm dellu siwaat seen kër ci jàmm incha allah que que le maire gañ yàlla ki mu tudd rek nga xam ne moom mooy gañe mhm. mu daal di gañe ci jàmm ñu xam ne Sénégal ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi Euh, te lépp loo xamante ne euh, wax dëgg yàlla euh, luy gaañ Sénégal la rek waruñ cee taxaw ndax ñun ñëpp ci ci réew mi lañu bokk lépp lu lu lu ndar réew mi rek daf ñuy daal di affecté du dëgg donc kenn ku ci nekk ci yéen rek dañ leen di ñaan ngeen xëy dem voté ci jàmm delluwaat seen ay kër ci jàmm incha allah bu 18h ñu daal di xaar résultats yi ndax. ñii nga xamante ne ñoo ma tiim muy équipe technique bi bu ngeen seetaanee sur la 2STV avec nos journalistes di gis li nga xamante ne moom mooy résultats yi en temps en heure. ah en direct avec Astou Dione et cetera et cetera xam naa ni euh, noonu lay demee rek ak équipe bi yëpp wax dëgg yàlla di leen jaajëfal di ko jiital ci Babacar Karajo euh, di ci tekk papi Momo tey ñoom ñoom a tiim nii ah euh, Manick ci décoration bu nice bi nga xamante ne moom wax dëgg yàlla bu mucc ayib bi ah Manick ay millions lañ la jox Manick ci décoration dafa bari del teg li mu bëgg nga koy teg ay <laughs> di jaajëfal ñëpp ñi ci ginnaaw xam naa ni bàmb mu ngi ci ginnaaw tamit ah sama musóor baa ngay tas sax waaye papi dama bëgg nga jël bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy basin bi fi ma génn ah tey Nafi dafa daal di kii comme dama tàdde Nafi dama ñëw rek la ma su daal di koy tël euh, Fruitnaguère euh, basin bi nga xamante ne ñu ngi koy euh, coow ci dëkk bi motif yi fii ngeen di di ko gis muy nes nes yi wax dëgg yàlla lii 50 pour cent soie viscose la ak li nga xamante ne moom mooy cinquante pour cent coton du tooy du ñàq du def dara basin bu léger la ah motif ya génn wax dëgg yàlla bu ngeen ko bëggee da ngeen dem ci laama boutique fële ca HLM 5 en face euh, euh, guy gi ci kaw tali bi rek ah bu ngeen passé station bi rek laa ma ngeen dem fii ak boobu ak boobu ak di ngeen gis ma koy sol bokk na ci euh, noble noblesse bi ak bi nga xam ne moom mooy imminent ah, imminent bi aussi 100 pour cent dinaa dinaañ sa bos ak bosu karaajo bi hmm. moom laa war a dem jëli mais comme bi xat élection yeeg yooyu campagne bi yeeg yu ni mel donc ma nga baalal ma ko rek bu ma kii ay ayca Nourou la Jus ah à garder de préférence au frais et à l'abri de la lumière euh, euh, mi ngi noonu 100 pour cent naturel la euh, bu ngeen demee EDK bu ngeen dem rek da ngeen ko fay daal di fekk jus bi nga xamante ne moom mooy jus bu baax bi yéen xam ngeen nàmp yi du ay caaxaan <coughs> <coughs> au royal ah euh, eau pure claire et très ndox bi nga xamante ne moom la ñuy àndal à chaque fois ci émission confrontation bokk na ci Uniparco bokk na ci savon la main ak euh, li nga xamante ne moom mooy ban ci encore Mouhamadou Moustapha man loolu laa jotoon jàpp. ayca ni moom di ngeen am spécial Alassane Mbaye ak euh, mu fas yéene sargal ki nga xamante ne moom mooy ajaratu Kiné Lam ah ñu daal di defanteeg yéen beneen plateau boo xamante ne dañuy déclarer panalu Saint-Louis ah panal de Saint-Louis spécial panal de la ñuy nar a déclarer fii tey ci plateau 2STV Euh, muy spécial 100 pour cent galayaaba bi xam naa moom laay def rek di ko daal di tëbal ci vacances yeeg yooyu noonu ñuy succé xam nga. pour pour pour gën a yokk war nañoo dem ci région yi ak Gambie surtout Gambie ñu ngi ñuy laaj itam. Gambie ñu ngi laaj waaye xam naa ni am na benn tour bu ñuy waajal. Euh, euh, fii xam naa ak concert yi. Mhm. Ah, foog naa ni yow foofu foofu nga jëm sax. ak Lamp Gueye muy concert yi nga xamante ne war nañ ko amal mbuur Ndar ak fi nga xamante ne moom mooy Dakar ak apes lay doon mhm. waaye mbuur ah le 13 le 15 incha allah ñaga nga saint mhm. waaye tamit ñi ngi fii nga xamante ne moom mooy Dakar dellu si fi le 20. Mhm. terrain Acapes euh, euh, yaakaar naa ni ay dates yu mucc ay di ngeen ko am. ak la 2STV ci mhm. vacances yi. muy ay vacances de rêve wax dëgg yàlla di leen jaajëfal mbokk téléspectateurs yi di leen wax ni ngeen continuer waat di seetaan li nga xamante ne moom mooy 2STV suba incha allah.

ci sama euh, page Snap d'ici là restez scotchés sur les programmes de la 2STV ñu ngi leen di jaajëfal di jaajëfal sama invité bi nga xamante ne moom moo jotoon na ñëw te tàggatoo mais xam naa ne malentendu la rek lépp dinañ ko daal di euh, euh, dalalaat ba mu ba mu gën a rafet. ay ayca sëñ Moustapha Dramé ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di kontaan bu baax aussi ci sa déplacement donte gëmuñu ko woon. kontaan bu baax a baax baax ci sa déplacement waaye suñu yaay ji nga ne moom moo fi toog koy jaajëfal moom sama digganteeg moom Sénégal yëpp xam ko dootuñu ko naataab la gis ngeen ñu euh, euh, récemment waaye ñëwam lii lu ma bett la waaye tamit lu ma kontaan la waaye dina ñëwaat ñëw boo xamante ne di ngeen xam ne wax yàlla ponkal mee ko invité jërëjëf mbokku téléspectateurs yi Fama sama doom ah euh, Seexu Kati maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal mbokku téléspectateurs yëpp Momo Papi d'ici là restez scotché sur les programmes de la 2STV ba samedi incha allah